العظيم وبلغ مولانا رسول الكريم ونحن على هذا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين نيجي زياره نيب دي لين نيو دي نجورتني طول مون فا بيان الحمد لله دي نيو وا دايره بييب دي سي جيتال لا غراند كوتش صحنا عائشه di teg nuyo yep ci loxam mu jallal mako ñep ma sha allah Muhammad gis ñom lulu ñom Mouhamad Tijani ñom Abdes Bat gay daal ñom sëñ Modou Gay Kempes ñom Kempes ma ngi lay ziaru baax ah Muhammad Mamoun ah wa Muhammad Mamoun ziar na la ho ci fotu gay du baax ci fotu gay wu pare fay écraser wu te loolu wuur dalanya ñu ngi leen di ziar yooyu ñëpp ay eh, pate mister le prof waaw le grand professeur ñu ngi lay ziar bu baax bu ba jëpp waaw ah, Chérif ak sama sëriñ ñu ngi leen di ziar Madi Cissé soxna Nafisa ah Mamadou Mbengue ça c'est le grand xutbu waaw ñu ngi leen di ziar bu baax a baax kan Moustapha ne Mourtada Mbaye mbay eh, Mbaye Samb yooyu gis nañ gisee ah waaw macha allah Ousmane Ba ah, sama sëriñ le grand oustaz buy làqatu ñu ngi leen di nuyu ñëpp leen ziar. Taye Abdul Aziz et eh, Alhaji Thio ah kii c'est le grand gnostique le boustanier waaw macha allah di am mbégte ci dajeeg ñëpp macha allah Olof Ndiaye Olof Ndiaye ziaram leen wiis wiis nuyu naa la donc tey comme ni ñu ko gisee balaa dara di xew ñu leen di ndokkeel di leen ah, di leen ñaanal yàlla donc ah, wax nañ ni weer bi ah, feeñ na kon normalement tey jii. le premier jour weer bu ñuy wax Chaban c'est vrai que nous jullit ñi ñu bëri miinuñu suñu weer yi malheureusement donc euh, suñu weer yi euh, islam tamit 12 mois la à la différence de mois toba le calendrier est lunaire n'est-ce pas donc le mois de Chaban c'est le huitième mois de l'année musulmane huitième n'est-ce pas moo ñëw après Rajab moy ñëw avant Ramadan. n'est-ce pas donc nous sommes au huitième mois euh, de notre de notre calendrier n'est-ce pas yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag waxoon na ne woon na inna rajab shahrullah mu ne rajab kat weeru yàlla la mu ne wa shaabaan shahri mu ne shaabaan sama weer la man man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa ramadaan shahru ummati mu ne weeru koor nag mooy sama weeru xeet n'est-ce pas donc euh, macha allah kon egsi nañ kon ci weeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax suñu matxal suñu ubbi bu ñu ubbé kon du fortuit c'est pas fortuit té ñu ngi ubbé sar bi nga xam sar bobu xamna ñu bëri ci yéen xam nañ ko c'est la sourate 49 euh, euh, du Coran la 49e sourate du Coran ñu wax Hujurat n'est-ce pas euh, Hujurat signifie ay appartement n'est-ce pas ay appartement c'est au pluriel les appartements appartement nak amna na ay maanaa yu bëri ñu japp nañ appartement moy wàccuwaay way fi ku nekk fan la taxaw Eh, ni japp nañ ni moy mooy yalla ci relaté ku nek fu muy duggal ki ni japp nañ ni japp nañ japp nañ ku nekk daal ak tolluwaayam waaw eh, ndax eh, xat alima kullu unasin mashrabahum ken ku nek amna deg deg amna nan wayam mu fu muy delo wax ci waye ni gis rek ne dafa am ñetti sar yi nga xam ne saar dafa mel dafay gëna insister ci li nga xam ne ñu gëna ñor jamono ji muy li wax al muamalaat ñu wax muamalaat n'est-ce pas muamalaat moy moy li moy jëf yi ndax sar yi ñetti sar yi dafay jàngalé teggin c'est un group de saar bi nga xam ne ñett lañu euh, la sourate 47e la sourate 48e ak la sourate 49e sourate 47 mooy sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est-ce pas c'est la sourate 47 du Coran la sourate 48 mooy sourate Fath n'est-ce pas moom mooy sourate Hujurat bi nga xam moom laa ubbee nii te dans cette sourate ñu ngi lay jàngal yan melokaan la jullit war a mel ak mbokk jullitam yan melokaan la jiitu war a am digganteem moo ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nan la war a comporté ak yonent bi sallallahu alayhi te comportement yi pour ñun ñii du dund tasawuf dañoo gën yonent bi sallallahu alayhi wasallam faatuwul te tuxuwul yonent bi mu ngi fi ba tey i'lamu euh, anna fiikum rasulullah ñu wax bi dañ ko gëm dëggal ko ba pare dans un caractère atemporel naa si ñëw léegi si ñun firi alxuraan parce que alxuraan dafa am ay principe de base n'est-ce pas alxuraan dafa ko codifié si 19 principes de base yoo xam ne euh, tasawuf ku duggul tasawuf wax dëgg yàlla mën na am compréhension si alxuraan moo tax nag ñun moom macha allah euh, ñu ngi si turuux yi ñu ngi koy ñu ngi koy dund te ñu ngi ko bëgg yàlla ñu ci yàlla saxal yàlla ñu ci yàlla rey yàlla ñu ci yàlla dekkil loolu ñuy ñaan ñun donc surtout xujuraat soit bu am solo la n'est-ce pas Yonent bi sallallahu wax na nee na digle na xeetam sax ñu koy jàng chaque jour. il y a des mérites qui sont attachés à la lecture de cette sourate là bi xam lañ teg ni euh ñaarel ba ku ñuy wax jafar sadiq te kenn la ci imam yu mak yi xamne euh, ku ñu xam la ci biir euh, diine ndax jangal na aussi bien ñom malik waye tamit ku ahlu shia tamit di di poukere wo la ne moy sen 6e imam waxon na ne sourat bo ko jang am nga maana ku dem ziar yonte bi alayhi wasallam fi nga tok noonu am nga maqama ziar yonte bi alayhi wasallam donc euh, ma leen koy ñaax leen ko fatali Ah, euh, c'est la 106e surat révélée du Coran C'est pas 106 il y lu bëri ci gars wax moom la révélé après euh, ba mu révélé surtout le Mujaddala moo ko ci la 106e elle est classée 49e du Coran pourquoi euh, l'ordre d'agencement du Coran n'a pas respecté l'ordre de révélation euh, lu bëri tamit li nga xam ne war nañ ko si jàngat en tant que musulman jullit ni war am jàngat suñu téere gën a maîtriser l'histoire de la de la compilation de la révélation l'histoire histoire al alquran ndax al alquran ñun amuñu lu ko gën a rëy amuñu lu ko gën a kawe foofay rawante kaay ba képp ko raw ci diine bi si alquran nga rawee képp ki nga xam ne tamit jël nga ndaare tamit wax dëgg yàlla foofu ko jëlee ndaare donc kon baax na kon chaque fois ñuy gën a échanger di gën a laajante biir sur ce Coran là donc la sourate euh, Hujurat elle n'est pas longue

loolu verset yi guddul lii pour mokkal ko en moins d'une semaine di nga ko mokkal incha allah donc lii moom maa ngi leen koy ñaax leen ko waaw di leen ko bàyyiloo xel n'est-ce bi ko jiitu soit bu bu bu doole bu am doole la bu am solo tamit si sotu teggin la bokk ndax groupe bi ñoom ñett lañu ñoom ñett sax soo booy seen aaya yi bëriwul na soo booy seen aaya yi 85 aaya kese la loolu nga xam ne kon bëriwul soo am sutul Muhammad nga xam ne 38 aaya la sutul Fatah nga xam ne 29 aaya la ak sutul Hujurat nga xam ne moom la. donc euh, macha allah euh, di di si bool tamit beneen point bu am solo comme que sa moo ne weer bi weeram la weer bi tam mu siy dénk tamit kenn ku nekk ko mën ngeen gën a bëril seen ay salaatu ala nabi ah, julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, xasida ñu ko bind ko tagg maanaam xasida yi xam ne ci marxu la dañ ko bind di ko taggee yonent bi sallallahu alayhi suñu kilifa yi bind waaw ah, suñu kilifa yi bind nañu dañuy bind wax dëgg ko jeexal te seen bind yi ay teranga ay bànneex la nañ ci jàpp jàng kon ko imaam yi trahir nañu diini bi ba tëj jumaa yi ñun au moins euh, nañ ci nañ ci dund nañ ko dundal lu baax a baax yàlla yàlla defal tawfiq insha allah yàlla may ñu weeru bu bu bu ànd ak tawfiq n'est-ce pas yàlla defal ñu si baraka yàlla may ñu barakatul muhammad muy baraka yonte bi sallallahu alayhi wasallam euh, donc euh, yàlla saxal ñu si mustaqim yàlla may ndam l'islam may ndam ñuñu l'islam may ndam umma bi Eh, ci barke sangu sangi ci barke sang bu tedd bi sayyidina muhammad sallallahu Alaihi wasallam donc li ñewat ko wara amat benen tombu eh, jangat si benn live bi xamé demba tambali won nañ ko donc tay tamit gaay yu convoquer mo sama gaay ñom ñom ñom ñoom baara ak gars yëpp dur ma convocation dama fokk ñew waxtaan si ci yi eh, ci digënté batin ak batil n'est-ce pas on avait je pense qu'on avait campé le sujet hier n'est-ce pas euh, On avait campé le sujet par rapport avec euh, Batin, euh, c'est le cachet. Dans le cachet, il y a du bon, il y a du mauvais. Moi, le permis à la fois le commun des gens, qui est Batin. waaye nag am li nga xam ne mooy baatil avec L nga xam ne c'est le faux le faux arme satan la arme seytaan la ak ñooñu seytaan yi nga xam ñu koy doxal de tout temps et de à tout moment ñu war leen nag ràññee bu baax a baax ngir bañ a njar suñu imaan ngir bañ a suñu tawxit ngir tamit yàq suñu ay suñu gëm-gëm donc bobu nak euh fokk ñu ñëw si benn jàngat bu ndaw n'est est ce pas euh, su jaré sax ma duggal euh, ma duggal Ousmane Ousmane mom ci gaay na ruski yi yaseeg la yaabu seex si ñoon la bokk mom turam bi sax mu ko bindé en russe sama bokk russe la <laughs> waaw eta état lu daan chto état kak dé la donc Ousmane nako duggal légui ni parce que moom tam mu ngi def liggéey bu am solo jamono ji il fait des live euh, yi nga xam ne ay nit yi nga xam ne coronavirus dal na leen bitim réew euh, partagé nañu si ay live am naka la ñu fajoo donc la supercherie kon elle elle continue et daf ñuy daf ñuy gën a confirmer dans notre position ñun dañoo gëm ne lii amul lu extraordinaire waaye tamit état bi tamit jëlul mesure bi mu war a jël tam pour régler ko man lii moom laa gëm ba tey ci laa nekk sànq rek maa ngi koy wax ne gars yi paludisme dans le monde statistique yu OMS yor mboolee mi organisation nationale yi ak mondiale yi gëm ko que le paludisme tue deux personnes une personne chaque deux minutes n'est-ce pas chaque deux minutes le paludisme tue euh, une personne donc le paludisme fait 450 euh, 000 morts n'est-ce pas 450 000 morts euh, dans le monde chaque année ces 450 000 14 ils sont en Afrique donc il y a plus de 400 000 personnes qui ont par des paludisme chaque année de tout temps ñëpp xam nañ ko mais pourtant yéemul doomu aadama jaaxalul kenn te action collective bu ñu war a jël pour jéem a endiguer feebar boobu nekk à à à sax en amont pour jéem a prévenir loolu parce kenn defu ko n'est-ce pas parce que maladie la bi nga xam ne les pauvres lay rey coronavirus nag am na am na ñaari mérite il a le mérite d'avoir ay tubaab n'est-ce pas il a le mérite d'avoir touché ay tubaab ba pare il a le mérite d'avoir des hommes politiques blancs yoo xam ne ak seen ay soxna. ba tax àdduna bi yëpp bëgg nga réagirandoo muy benn ñaar laa la mérite de confiner les gens chez eux amul génn bu dem faj bi donc ñaari mérite yi moom wax dëgg yàlla euh, baara ñaa waaw loo wax si kii bi loo loo vérifié <coughs> les maladies cardiovasculaires rek en France kese France kese elle tue presque quatre cent personnes chaque année quatre cent mille laa wax actuellement le corona mu ngi si ñaata mu ngi si seize mille cinq cent n'est-ce pas euh, mooy loolu euh, mooy loolu les accidents de la route ak accident nekk lii rey si àdduna bi wax dëgg yàlla bu bëri na waaye ñu ngi ko delloo yàlla xul malakul xul wakkila bikum malakul matalati wakkila bikum euh, wax dëgg yàlla doñ ko rëcc n'est-ce ñun moom vraiment nekkuñu ci tànge googu waaye nag baax na ñuy bàyyi xel euh, yenn aspects yi nga xam ne jàpp naa ne aspects yi am na soo trop pour fàttali <coughs> am na leen li xam ne baax na ñu koy ñu koy bàyyi xel coronavirus bi waxoon nañ ni virus la déjà kon lii moom ñëpp xam ne ni virus la maa ngi gis sànqee ni laaj mooy virus la wala bactérie <laughs> dama bëggoon sax ree parce que fa laaj laaj bi ah, laaj bu laaj bu laaju sànni xeer la mu ne coronavirus bi virus la wala bactérie ndax seen gel yi ndax dafa efficace ci bactérie ndax dafay ndax dafay réale virus sa question elle est très pertinente n'est-ce pas donc euh, il faut ñu comprendre kon pour ñu xamul parce que ñun euh, même bu dee xam ngeen yéen c'est vrai que nag bu bu mu leen énervé dañuy jàng rek te bëri li tax ñuy def ñu live yi loolu la xam ni am na fi ñu ils ont accès à l'information ay jàngkat lañu ay kat lañu ay borom xam-xam lañu n'est-ce pas donc vous avez accès aux écrits de tous les grands chercheurs et les grands professeurs c'est pas le cas de tous les Sénégalais live ils sont faits en réalité pour que nous imprégner ñu bëri ñi ils n'ont pas la chance d'avoir été à l'école ils n'ont pas la chance de faire des recherches et ils n'ont pas le temps de pouvoir exploiter les productions intellectuelles

et naa leen coronavirus lay liggéey moom moo yor euh, sax euh, les premières mains de toutes les informations corona quand je parle sous son contrôle donc euh, il faut ñu gëm gis ni déjà virus ak bactérie kon du ñu n'est-ce pas lu tax mooy du virus. On tamit entité élémentaire la doom doom gu daw la rek comme bactéries ñu a bactéries n'est-ce pas bu am enveloppe bu am li n'est-ce pas ak ci euh, génome n'est-ce pas euh, génome am soit ARN la wala ADN la ñaari génome leçon première n'est-ce pas donc coronavirus mom, spécialement ci virus mom, moom virus bu am ARN la n'est-ce pas ARN n'est-ce pas Medoune Diène ah Medoune Diène kon am nañu fi biologiste ah, kon nak kon affaire yi kon léegi mu leer Medoune kon xam jël la kon mo gën melni di expliquer parce que vraiment euh jallu explication yi gudd si tu permets ma jël la ni euh ndax netali seen gémminu borom euh, la la la la dàqee donc caractéristique tak virus nak lan la euh, virus lu lu meuna lu meuna mën a la n'est-ce pas dafa soxla li virus soxla dafa soxla dugg ci yaram dugg fekk cellule cellule yi nga xam ne ñoo nekk ci biir yaram ci cellule yooyu lay jéem a dugg n'est-ce pas bu fa duggee nag euh, daf fay des donc jël matériel cellulaire bu nekk ci biir cellule bi mu jël ko utiliser ko pour mën a pour mën a développer moom rapidement dans la dans la cellule y a du matériel lii tamit suñu cours premier c'est ko fàttali ko wax dëgg yàlla euh, moo mooy loolu waaw eh Babacar Sadikh ah waa nga xam ne biologiste la loolu de wax dëgg yàlla xaw ma ko woon dama jàpp ne corona lay liggéey rek ah <laughs> day laqatu di nga seetal ma loolu je baaw nga xam ne chaque jour ñu wax je ne savais pas que c'est un biologiste n'est-ce pas. donc kon su ma juumee gàgganti leen ma xaaral ma ñëw après dugal léegi euh, Médoune wala Babacar kon ñoom ñaar kenn ki nga xam ne euh, pare na ci donc euh, virus bi nga moom dafa yor ARN n'est-ce pas. dafa soxla kon utiliser ADN euh, bu nekk ci cellule pour mën a pour mën a pour mën a pour mën a multiplier wu pour mën a pour mën a bëril boppam n'est-ce pas donc euh, ndax noonu rek la mën a développer ci biir cellule il faut mu utiliser matériel cellulaire bi il faut mu utiliser ADN bi n'est-ce pas léegi nag su nekkee di jéem a soppeeku n'est-ce pas dina def ay mutation tey Abdoul Aziz ak li jarul sama yeggali ndax vraiment nag yeggal day métti Babacar Babacar xaaral ma jël la nga leeral ñu question virus parce que dafa am ko laajte te vraiment man gëw ne y a une question idiote y en a pas y a pas kenn ku nekk ak fi mu toll ci xam kenn ku nekk ak li ko jaaxal te ni ku nekk li ko jaaxal euh, lañ ko war a leeralal pour affaire bi leer si boppam n'est-ce pas léegi nag xaaral woo Babacar Sadikh euh, amul droit laaxatu nañu nañu leeralal Mourtada Mbaye ay tamit apprenti yo man man fi kon ñun suñu panel bi xam nga lii mooy kon ñun suñu daara ji daara ji daara ji am mana de daara ji ay naan deug fi nek discipline yépp ñu fi tassé nest ce pas moo tax toog ci daara gi sax di wax gaay est du est du erreur sax donc parenthèse ak bi xam ne fo faut ngeen may ñu parenthèse bi rek ñu leral yeen affaire ndaw yi xam après on va évoluer inshallah wa ma ngi woni nii Babacar Sadikh mais ça sonne euh, ça sonne xamna peut-être il n'est pas disponible fa nek donc euh, ça sonne dans le vide mais anyway avant live di jeex naa nañ ko jéem a inshallah allah rabbi comme ça ñu ñu comment dire je ñu mën a leeral daal ñu mën a donc kon xaama yeggale kon samay ma wax samay bêtise après lu su ma juum ngeen ngeen ma donc euh, ci ci ci kon mbiru transformation li à contrairement ak li nga le génome euh, bu am ADN contrairement à ces à ces génomes là euh, virus yi amuñu protéine protéines, wax les virus n'ont pas de protéines. bi ont des moyens de permettre dans le processus de de de multiplication ñi détecter cette erreur dans le codage li wax codage moy li teunké tënkee euh, information wala bok sen nek gi maanaam sen personne sen sen sen identité n'est-ce pas ak diko corriger protéine moy permettre loolu mooy permettre dans le codage euh, ngay mën corriger les erreurs yi xamné dans la multiplication euh, de te sax des des gènes donc li dafa am dafa am solo tamit ñu comprendre ko donc kon nag kon que virus amul protéine dafay kon yokk kon euh, nu sax mutation bi dafay mel ni comme dafa nek di muter chaque instant parce que on corrige pas directement pour gëna nuru ak virus euh, euh, maanaam virus maam ji ki nga xam ne mooy maam n'est-ce pas moy mam boy bi nga xam ne moo njëkk dugg pirater benn cellule pour utiliser di di gën di gëna mag donc buñ jëlé jëlee supposons cas wu virusu grippe ndax sorantewul sorantewul tay di sama ben sama ben pa boobu dafa ne dafa laajte la moy corona.

Euh, c'est un peu léger mais chaque 10 ans grippe boum mu donne chaque 10 ans melo am ak euh, séquence mu am euh, def na par rapport ak première fois bi nga il y a 10 ans donc virus il est le même il n'a pas changé waaye les mutations à travers chaque année virus grippe chaque 10 ans mu est am ba passé maa ngi koy junjee dama foo jël ay chiffres OCDE maanaam tous les pays européens euh, les vingt pays les plus boo boolewaal si ñoom utaale ñoom Chine ak yëpp ba seen statistique sur les mortalité ma jël ko par trimestre. n'est-ce pas di c'est mortalité les causes de la mortalité le matériel sanitaire le pourcentage d'hommes euh, par médecin par par population par 100 000 habitants euh, infirmiers par 100 000 habitants matériel sanitaire utilisé déplacement du c'est que les statistiques sont complètes. statistique complète ils ont des statistiques vraiment très très complètes mais de def projection pour xool euh, trends xol, les courbes la lay mais sérieusement premier trimestre 2020 il n'y a rien de neuf pour nous l'évolution sur 30 ans sincèrement taxu ko waaw taxu ko doy war daal taxu ko doy war donc kan mooy kan wax ma jël ma jël kan euh, soo bëggee ma jël kenn de ah les biologistes s'il vous plaît tamit tamit ñi fi nekk il faut tam ngeen laay bir moo ñu sant nañu fas alu ahla zikri in kuntum la taalamun bi bi kon ñi ko xam lañ ko war laaj yéen ñi biologistes yi feeñalal seen bopp sinon man dama nar expliquer parce que man li ñu jàng biologie ba loolu laa nar n'est ce pas donc je suis pas biologiste de formation fay na seen bopp jël kenn waay donc euh, loolu la ñuy mutation ma wax léegi ci grippe nga xam chaque 10 ans mutation mineure mineure suñ ko dajalee mooy dem ba mu nekk changement bu que nous loolu la ñuy la fraction virale n'est-ce pas la fraction virale fraction virale dafa am solo trop léegi nag li laal corona n'est-ce pas ak yeneen virus yëpp yoo xam ne ñoo nuru corona maanaam ñoom euh, dañoo am ARN ils disposent c'est virus à ARN ndax virus yi naa leen ñaar la virus à ARN ak virus à ADN n'est-ce donc virus yëpp yoo xam ne enveloppe bi moom enveloppe am dafa mel ni comme couronne daa mel ni comme couronne di waxoon nañu ko moo tax ñu dégg sax corona n'est-ce pas couronne boobu nag daf koy protéger daf koy protéger euh, mooy tax euh, Ousmane Ousmane voilà xaama jël Ousmane kon xaama jël Ousmane. waaw nii la kay il faut il faut assumer way mo gën gën melni ay ragal ni ragal baxul ha ah. xama jël Ousmane Ousmane nagam tamit jambar la mo na wax deug yalla temps yépp mo ngi def liggéey bu muccu ayib ci ay live yi nga xamné euh mu tam waa daayira bi la gis ngeen daaira bi kon xam solo wa alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh al alxaaji Ousmane <laughs> dafa melni yaangi ci ngi biir instant yi ñu ngi lay delloo ziar bu baax nga def ak coono waaw yaa ngi en direct ni instant gars yi ñu lay dégg ya ya sëñ Ousmane dafa daw xanaa mu ngi direct rek a daw allo waaw professeur dafa mu di dagg de maa ngi ziar waay waaw ñu ngi delloo ziar xaasatan Yacine na ngi def ak coono ñoo ngi sant. alhamdulilah waaye alkalima bay na nga tey saa euh, parole bi bu ngi sa diggante ay loxo bëgg nañ nga leeral ñu yenn yenn yi nga xam ne. Oh. dina am solo si ñuy déglu ñi nga xam ne si bëri seen jàng peut-être si wàllu école taxu ko demee noonu wala boog amuñu ils sont pas à niveau ci recherche jamono bi te yow temps yi yaa ngi si def waxtaan wi am solo. waaw waaw. donc euh, macha allah. waaw waaw waaw waaw. waaw léegi ñun moom wax dëgg yàlla corona moom wax nañ ko ba pare déjà dañuy jéem a xool corona lu mu indaale. Mhm. <laughs> ndax corona moom lu mu indaale ci ginnaawam dafa bëri toole lool te am na ay problèmes yu bëri yu si laxasu. Mhm. Euh, te temps yëpp ñu ngi dégg euh, professeur Raoul Tudd yi nga xam ne moom daa mel nii maanaam dafa jàpp sàcc yi daal fekk leen ni sàcc mu jàpp leen. <laughs> te fu ne nii moom. Mm-hmm. débat bi def koy yóbbu foo xam ne dafa leeral ñëpp ci ak ay termes yu simple. chloroquine moom ku dugg ci internet bi moo xam lu mu doon. dëgg la. waaw mais avant daa am loo xam ne foog ñu leeral ko tam mm-hmm. parce que organisation mondiale de la santé bi nga xam ne moom moo ñu représenté ñun ñëpp. Mm-hmm. waroon ñu dimbali. moom dafa boolewul chloroquine bi. ci ci liste priorité yi nga xam ne. moom la ñuy def pour traiter euh, coronavirus bi. parce que amaguñu neen ñoom nee nañ amaguñu lu koy faj. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. waaw comme que chloroquine bi dafa efficace. Mm-hmm. problème bi mooy daa am ñu bëri ñoo xam ne dañ leen contaminé woon. ñu dellu si France. léegi ba ñu dellusee France euh, professeur Raoult bi daa am ci cent contenant yu mu jëloon pour hmm. tester leen. waaw te doon doon fajax chloroquine bi la doon doon fajee. mooy hmm. nivaquine bi daal boo ko. waaw waaw dégg nivaquine. waaw. Hmm. léegi ci cent personnes yi nga xam ne Marseille nañu nekk ba mu a euh, diagnostiqué. Mmh. dafa ji ñaari personnes rek vraiment ñoo si nekk en situation boo xam ne c'est vraiment préoccupante. dangereuse. Mmh. maanaam ñaari mag lañ woon yoo xam ne waaw dangereuse amoon nañ plus de quatre vingt xam nga ne mmh. wax dëgg yàlla moom sibiru moom bu jàppee mag moom da ngay doggali. da ngay doggali dëgg la. waaw léegi moom ba mu defee recherche pare dafa dem.

donc moom mu woon possibilité sax mun wax loolu. Mhm. mais en fait lan mooy yokk problème bi mooy ñu mu doon euh, ñu mu doon diagnostiqué Marseille. après mhm. ñoom ils ont vu que y résultat boo xam ne c' est pratiquement cent pour cent. Mhm. te loolu kenn waxu ko woon. dëgg la waaw léegi moom ba mu bindee organisation mondiale de la santé. daf leen bind pour laaj leen mais yéen. nan ngeen bëgg a traité coronavirus bi. nan ngeen bëgg a traité coronavirus bi te boolewoo leen ci chloroquine ah loolu ci cité benn débat ñoom ñu jéem a xool nuñ ko étouffé ba sonn. Mm-hmm. première ministre France bi nga xam ne moom mooy la madame Bouzine la mm-hmm. daa am leneen lu lalu ci kawam. mooy mm-hmm. jëkkëram. dëgg un certain Lévy. boo xam ne bokkul ak benn Henri Lévy mais kii nag Yves Lévy la tudd. waaw mais ñoom daal xamante nañ seen biir. Mm-hmm. dafa am benn laboratoire de recherche boo xam ne pour affaire bactéries ak euh, maanaam big microbe ak yooyu yëpp ci lay mm-hmm. ci lay yëngu. Mm-hmm. mu ngi nekk Wuhan en Chine. p laboratoire boobu. waaw laboratoire boobu dañ ko doon financé si a travers un million d'euros par mois. di financé foofu ci Wuhan. te boobu ñun it xamuñu mu demee. te boobu premier ministre bi tamit wax dëkk yàlla. de la France parce que ñun moom wax dëgg ñu ñun nous sommes sous tutelle de la France. donc foog ñuy wax yooyu. ba mu amee tamit ñoom ñu xam ne ne carrément sa monsieur Raoult la instant yi indi na problème bu rëy. parce que xamal euh, ah, chloroquine bu ñuy coonoom. quatre euros cinquante lay jar. Mhm. waaw mooy garab bu war a fekk coronavirus nañ ko mhm. wax noonu mu yomb. parce que mhm. man jàpp naa ne garab yi. faj fajukaay bi trouvé nañ ko ba pare. waaw c'est que nag dinañ nekk duñu tuur la ndam parce que ñoom il lu ñu doon prévoir mooy maanaam jaay ko cent fois le double garab bi waaw waaw xaalis l'industrie pharmaceutique waaw l'industrie pharmaceutique mu ngi doon xaar rek parce que doon xaar ba nit yi lottu commencé laaj mm-hmm. garab bi laaj garab bi ñu génnee ñu benn vaccin boo xam ne ce sera pas accessible à tout le monde mm-hmm. dina benn genre élite boo xam ne ñoo ciy def ñoo ciy teg seen loxo mm-hmm. léegi luy problème bi mooy tamit euh, ce monsieur là il est suivi par beaucoup de virologues yoo xam ne partout dans le monde parce que moom kii du ndaw waaye du camoo. la ce monsieur mm-hmm. du camoo moom am na ay. am na ay distinction yu mag. gars yi neen Sénégal la juddoo moo tax. waaw moom mu ngi <laughs> tudd As Bernal teeru Baye Sogi boobu ngay dégg noonu. waaw di sangu jigéen. waaw mm-hmm. waaw mais xam naa ne fu mu ne nii moom c'est tard parce que ñun xamuñu nit ku baax tant que dégguñu ko. Mm-hmm. waaw bu ñu ko déggul ci télé yi duñ ko mën a jox cëram. Mhm. en plus le le monsieur xam nga il n'est pas présentable. Mhm. Euh, gis na karaw yeex barbu mhm. yeex xam nga loolu ça dérange les élites quoi. waaw léegi sa monsieur là euh, bu mu bindee organisation mondiale de la santé. les de organisation mondiale de dafa commencé yëgal les euh, l'industrie pharmaceutique ni ko ah li ngeen doon tëgg daa mel ni daa am ñoo xam ne daa am koo xam ne dafa ñëw. benn waay ñu bëgg saboter affaire bi. Mm-hmm. waaw léegi nag ñoom en attendant ci diggante bi. Mm-hmm. dañu dem fekk réservoir yi nga xam ne mooy fournir euh, mm-hmm. hôpital yi ci chloroquine. les gars ils ont tout dévalisé. yaa loolu nekk problème bu rëy parce que France léegi dañu war encore léegi produire chloroquine ndax amatuñu ko. amatu ko dañ ko stock bi yëpp jeex na. stock bi dafa jeex non stock bi dañ ko sàccee. parce que kenn ko jënd jënd. Ah. nañ ko jënd mm-hmm. industrie pharmaceutique moom moo ko jënd. Mm-hmm. problème bi mooy instant yi chloroquine euh, diggante bi bañ ko xamee ñoom dañoo génne benn loi bu bees boo xam ne c' est plus euh, pour nga dem jënd ko foog docteur bindal la ko. Mm-hmm. te foog nga nekk hôpital nekk en situation avancé pour mun a jënd chloroquine. léegi donc chloroquine c' est plus accessible à tout le monde. dëgg la. waaw loolu tamit doon benn problème boo xam ne tey jii. instant yi foo munti dem parce que euh, nit yi dañoo am loo xam ne dañ ko fàtte mooy. Euh, malaria bi ñuy wax nii. Mhm. moom nañ mun nañ ko jàppee sax coronavirus bi. Mhm. ba muy dugg Italie ci boppam. dafa décimer dëkk bi yëpp daf fi def ay il a fait des ravage ici. parce que tubaab bi xamuñu ko. musuñu ko utiliser. xamuñu luy chloroquine tey jii ba léegi jusqu'à présent. Mhm. boo duggee ci pharmacie yu nekk fii Italie. ils vendent pas de la chloroquine. duñ ko jaay. muy indi problème bu mag instant yi instant yi ba Donald Trump jóg wax si. waaw ne léegi nag chloroquine bi. Mhm. war nañ ko mën a di utiliser. Mhm. ah léegi nga gis industrie pharmacie yi nag commencé wàcc si ndànk ndànk waa Discovery ñëw tamit dugal ko ci organisation mondiale de la santé bi nga xam ne moom moo ngi doon traité kaawu coronavirus yi. Mhm. mais musi si dugal chloroquine. ñoo ngi ko bëgg a dugal mais ba léegi dugalaguñ ko. te en fait le docteur bi il euh, le professeur Raoul il a démontré scientifiquement que ne affaire bi boo ko defee traitement de six jours. Mhm. day jóge ci yow su nekkee ne yow nekk ci situation bu avancé effectivement effectivement. c'est un ah, scientifique te loolu c'est très important. c'est un scientifique waaw. waaw ah, très important lu mu wax noonu. Mhm. parce que moom ah, wax dëgg yàlla moom euh, yu muy def daf ci indi ay preuves teg ko tangible yoo xam ne ñëpp mën nañu see teg seen bët. Mhm. donc ñoom mënatuñ def dara. waaw man man loolu laa tudde arnaque du siècle parce que gars yi dañ ñu doon waaj a dóor mm-hmm. far yàlla daf ñu jàppale mm-hmm. ndax yàlla moo ngi def ci alxuraan ne les comploteurs là man maa leen gën a garaaw foofu te dinaa leen wan ñuy comploté innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda <laughs> macha allah wa makaw wa makarallahi yàlla kay day gagné toujours waaw ndax yàlla mu ngi leen bàyyi ñuy ba heure bi jot mu ne leen tel te mm-hmm. ab nit ku ñàkk solo moo waral loolu yëpp waaw léegi ñun dañu toll ci niveau boo xam ne tamit am nañ ay possibilité tamit ak ay remèdes yoo xam ne yu simple. wax dëgg yàlla bu nit yi remet yu simple. muy mm. garabu nii mbeex muy nebedaay bi nga xam ne mooy moringa. Mm-hmm. xorom polle bi. Mm-hmm. waaw am nañ tam benn am nañ benn live buñ ci def boo xam ne. Mm-hmm. am na ñetti nit yoo xam ne woo nañ ñu confirmer. daf leen daloon ñoom ils maa ngi woon ci live bi. te yàlla xam ne ne ñett nit yëpp musuñu xamante te ñoom wax nañ ma nuñ ko traité muy mu muy muy xorompole bi doon baxal mm-hmm. baxal boole ak feuille de laurier mm-hmm. waaw def ko ci ay bouteilles di ko naan matin midi soir mais waxuñu nag koo xam ne dara jotu ko mu jël mm-hmm. rek ay kiom di naan bu waxuñu ko mais koo xam ne dafa commencé gis symptômes yi ci moom dëgg la waaw loolu c'est très important léegi ñun chloroquine bi ñun ñuy xeeb nii garabu nii parce que tout ça ça revient à notre consommation locale. Mhm. waaw te loolu dafa am solo mooy parce que yàlla def ñoo dimbali ñun ñun ñoo am ay possibilité faju ñun ñoo ngi mel ni animal yi rek. Mhm. bu ñu feebaree xam ne lu ñuy faj saa nit yi bañ ñu ko wax. dëgg la. ah ndax di nga di di benn golo boo xam ne mu ngi nekk ci garab. Mhm. xam na feuille yoo xam ne bu ko ko lekkee biiram du daw. Mhm. xam na feuille yoo xam ne bu amee koy métti tuum ko c' est c' est xam ne yàlla moo ko baaxee. effectivement c' est naturel. Mhm. te ñun ñoo am garab yooyu yëpp nga xam ne mun nañu dimbali parce que dama gis ne daa am benn business koo xam ne tamit mais maa ngi ciy recherche mais pareillement. boo xam ne dama gis ay nit yu bëri yoo xam ne dañuy ñëw def seen ONG pour affaire plante d' arbre yi. Mm-hmm. mooy Sénégal vers euh, lutte contre la désertification. di si gis ONG Aberkan Aberkan le le monsieur Aberkan bi nga xam ne. moi je le suis tout le temps. Mm-hmm. Idriss dafa def affaire boo xam ne c' est mm-hmm. grave mais affaire boo xam ne tamit mënuñu ko reproché dara tamit. ndax saa dafa ñëw di ko planté ay garabam. mais en attendant garab yooyu moom dafay liggéey industrie pharmaceutique yi nekk États-Unis américains yi. donc ñun suñu chloroquine bii ñuy xeet nii gars yi dañuy ñëw fekk ko foofu daggati ko yëpp def ko ci seen i kii. yóbbu ko yóbbu ko ñu jaay ko mais dañ koy jaay à des centaines de millions d' euros. de dollars dëgg la. de dollars yeewul rek donc. waaw ñun donc ñun suñu hôpital yeex suñu virologue yeex suñu gars yi yëpp nga xam ne wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ak um, ah ba ma ma ma souligner beneen affaire mooy le mm-hmm. docteur Raoul là. Mm-hmm. il a été pratiquement plus de neuf ans. wala dix mu ngi ko nekkoon Dakar. Ah, en parallèle la IRD mu doon liggéey Marseille. mu ngi nekkoon IRD mu nga xam ne mu ngi am Maris xaw ma ndax nit yi xam nañ fu mu nekk. institut de recherche de recherche et développement. waaw kay ba pare teg ci mu ngi woon euh, Université Cheikh Anta Diop. waaw léegi euh, euh, lan moo tax moom savoir yi mu fi bàyyi yëpp jàngal ko si ñun. Mm-hmm. suñu suñu mbokk yi. Mm-hmm. lan moo tax ñun amuñu woon possibilité transmettre yëglu suñu pop lan mooy chloroquine bi wala ñoom dañoo ragal ordre de aveugles nu mu tuddati des médecins dal seen kaw wala. parce que ñun dañ gis ne. au mm-hmm. début monsieur Raoult ba muy wax ci affaire wu affaire wu corona bi. il était toujours attaqué par ses par ses pairs. par ses pairs yi nga xam ne ils sont sous coupe réglée que dafa am ñi nga xam ne ils coupe réglée de l'OMS. qui travaille pour la. daaw ñoo Mm-hmm. mais daa am ñoo xam ne dañuy liggéey pratiquement si ak industrie pharmaceutique yi dañuy dem di def partout dans le monde ay. Mm-hmm. ay congrès yi ñuy waxtaan ci affaire kii mais dañuy dañuy recevoir euh, en retour des subventions. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy gagné xaalis bu dul jeex ci affaire boobu. donc benn business la boo xam ne. industrie pharmaceutique moo nekkoon ci ginnaaw affaire yi. man nag léegi. j'ai eu peur pour ce monsieur mais heureusement ba nit yi dañoo teel artu commencé wax ci moom. Mm-hmm. donc je pense ne dinañ ko mën a def dara. Mm-hmm. mais su nekkoon ne si cappandaw gi nit yi. dañ koy éliminer dégg professeur Raoul bi dañ koy. éliminer effectivement. waaw mais léegi léegi instant yi mënatuñ ko éliminer parce que ñëpp ñoo ngi teg bëtam ci moom. Mm-hmm. waaw léegi euh, problème bi mooy ñun. am nañ possibilité garab bi moom feeñ na waaye duñ la ko wax mukk ba ñii de dañ laa noon non mhm. chloroquine bi mënul gi mais chloroquine bi sawaay mhm. dañoo def ay test ci nit nit yi dañoo amoon dañoo nit yi dañoo amoon mhm. mu ñëwee waa ji ne la leen ñaari quatre vingt sept ans yi mënatuñu parce que dañ nekk situation bu si la dëgg la ok bañ ko laajee tamit ci affaire confinement bi dafa ne confinement bi ça résout pas le problème amul sens solo waaw France seen chiffre yaa ngi yokk te ils sont confinés depuis dafa am solo. léegi man damay dégg Sénégal nit yi on continue de nous dire waaw nit yi dañ leen a toog leen seen kër parce que bu ñu toogee seen kër dañuy stoppé virus. Hmm. yow ban virus nga stoppé. yaa ngi génn huit ci suba. marché yi gis na mu mel. <coughs> yaa ngi gis télé bi nu mu mel. Hmm. bus yi nu mu mel. bus rek boo si duggee kenn bu amee coronavirus mun na contaminer ñëpp. Sénégal moo bëri dof il faut ñu comprendre loolu waaw mais léegi imam man damay laajte rek. Hmm. nan mun a confiner nit parce que ñun suñu euh, instant yi su nu ñuy dundee ñun. Hmm. ñu mun a permettre. Hmm. ñun ñu nekk ci condition wu confinement ndax confinement balaa tout dafa ànd ak ay moyens. dëgg la confinement du caaxaan da nga koy affronter bu baax. ndax boo nekkee ci kër gi moom. léppay yokk. wallaay. waaw léppay yokk mm-hmm. waaw ñu nekk Europe fii mun nañu la ko wax ak seen dépensiers yooyu mm-hmm. mais tey jii ñun am nañ am nañu am nañ possibilité wax dëgg yàlla coronavirus bi ñu ngi ko tuddee dañ koy bañ a tudd ñoom waaye ab sibiru la rek dëgg la sibiru bu mutee bu ñu yokkee affaire la rek sibiru bu dolli ay mbir la gis nga imam bu nekkoon sax ne mutéwul sax mm-hmm. coronavirus sibiru xajul ci tubaab ndax tubaab xamuñu ko xamuñu ko dëgg la waaw ñun africains yi nga xam ne dañoo feebar feebar ñu piqué ñax yooyu am nañu mm-hmm. système anticorps yoo xam ne mën nañu permettre wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñu affronter coronavirus effectivement. donc ñun euh, coronavirus bi euh, tubaab bi ñun ñoo jaaxle lan moo tax coronavirus bi décimé wul Afrique mais ñun africains yi waruñu jaaxle. Mm-hmm. ndax ñun ñun nous avons les remèdes. pour ça waaw léegi man suñu docteur yi suñu médecins yi nekk Sénégal. parce que dama gis benn docteur boo xam ne Daouda Ndiaye. moom pratiquement dafa def comme yeneen tubaab bi waaw dafa ñàkkal fayda recherche yu rawul di def. dafa xamul lu bëri wax kii bi. waaw mais waa jooju man daf maa tiital sax. Mm-hmm. ndax moom moo ngi naan waaw luñ fi waayoon bu ñu toppee lii paludisme lu ñu liggéey ci paludisme durant vingt ans day yàqu. Mm-hmm. mais ñun xam ne luy faj paludisme. waaw. <laughs> paludisme tey jii xam nañ lu koy faj. donc dafa amul xam ñun on s'en donc mm-hmm. ñun tey jii par exemple paludisme. waaw bu ñu yokkul ci affaire yi ñu ko wàññi. ndax xam ne ñu koy fekk donc non moom moo ngi indil benn problème ci beneen problème. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw te loolu tamit booy wax en toute honnêteté da ngay ne tey jii. Mhm. waaw docteur Raoult dafa trouvé loo xam ne gars yi kenn trouvé wu ko mais mhm. avec des choses simples te naa ne tamit. Mhm. ñun Sénégal am nañ ci am nañ ci part bu bu mag a mag a mag si monde bi tey jii mooy lii suñu sax la. waa ji nga xam ne dafa dafa juddoo fii. fréquenté dëkk bi fii gis plante yi gis remèdes yi. commencé si liggéey def ci ay recherche ndax chloroquine bi moom lu ko permettre moo xam ko mooy lu mu nekkoon Sénégal. Sénégal bu nekkoon Sénégal du ko xam. Sénégal moo ko xamal. Mm-hmm. donc nous on a joué quelque chose de grand sur ça. Mm-hmm. problème bi moy Trump tay di nga xamné mom il était sceptique sur ça. Mm-hmm. waaw ben chaîne de laboratoire bu gëna a mag bu ñu tuddee essai clinique bu Discovery. ñom tamit dañ doon def ay tests mais mosuñu si boole chloroquine. mais ils ont été mis sous pression duñ ko mujjé dugal chloroquine bi mu ngi fep fu mu effectivement des médecins cubains ma dool li nga wax ni ma pour dëggal ko rek des médecins cubains ont parlé de la chloroquine depuis bu yàgg. ñu jàpp leen ñàkkal leen solo ñàkkal leen fayda Venezuela Venezuela ci boppam. Mhm. Italie tey di dafa woo Cuba ak Venezuela pour ñu ñëw wallu ko. Mhm. te Venezuela moo ngi nekk ci benn situation moo xam ne c'est pas stable du tout. effectivement économiquement la waaw mhm. mais naka ñoom ñoo ngi traité chloroquine bi depuis ci jamonoy maam yi jóge seen dëkk. <laughs> jóge suñu dëkk dem ci ñoom. effectivement dëgg la. c'est pas quelque chose de nouveau. dëgg la. mais italien yi tey jii par exemple ñoom nii dañoo dem wooyu wàllu woowuñu France woowuñu Union européenne. Mm-hmm. donc y' a beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes qui se posent. ndax tey jii italiens yi dañu bëgg instant yi buñ si paree war nañ wax beneen problème mooy Italie day génn Union européenne wala du si mm-hmm. génn. Mm-hmm. waaw ndax tey ji Union européenne secourir ils les ont lâchés. dëgg la ils se sont tournés vers la eh. Chine et et Cuba te ñaar di ñëpp. ce sont les ennemis du système ordolibéral libéral yi xam États-Unis moo ko jiite ak ñom France ak. allemagne légui nit nit nit italien fi commencé nañ légui di sanni drapeau Union européenne di def drapeau Chine. Hmm. xam nga légui c'est le monde qui va à l'envers. effectivement. Hmm. waaw hmm. mu doon problème bu rëy léegi sénégalais yi tey jii instant yi dañoo indi beneen débat ci nit yi nan la nit mu ne fekk imam. Mm-hmm. nit ñu koy dóor loolu nga ciy réussir di reetaan. non c' la nit. Sénégal nekk nañu ah. un peuple bu normal. Sénégal majoritairement ñu fi normal ñu fi bëriwul. sincèrement ndax man dama gis benn image boo xam ne dafa ma choqué de mu daa am benn femme boo xam ne. Mm-hmm. sûrement ci dëkk àll yi lay jógee wax dëgg yàlla. comprendre lu bëri tamit mm-hmm. analphabète la. parce que nous on a cinquante quatre pour cent de la population qui est analphabète loolu problème la. Ah, ëpp na sax ëpp na waaw. waaw léegi tey yow nit koo xam ne danga ñëw taxaw ci télé bi comme un gars boo xam ne un dictateur de Pinochet la. Mhm. ñëw taxu ci leen ne waaw léegi bu kenn génn seen kër toog leen seen kër waaw ba kii bi tëj say kii ñëw génne say livre di dóor nit yi. et la dame elle sortait à huit heures du soir. Mhm. da doon jékki-jékki ak doomam boo xam ne amul trois ans moo ko tey ci loxo. Mhm. benn oto bu weex bu surgir nulle part bari ay civil yoo xam ne soluñu sax tenu mhm. yoruñu carte banane banandiru dara. Mhm. fekk fa gambi bi elle torturé devant sa fille pour trois ans. loolu c' est inhumain. ba pare ba pare ay cons yu nekk fii di réjouir di kontaan naan très bien dóor leen gars yi les cons et les imbéciles dans ce pays mais mais gis nga loolu tey ci par exemple ñoom ñoo di wax affaire démocratie gis nga bu doon Europe fii Italie fii dañoo créé benn wax lu ñuy benn affaire bu ñu tuddee fake news fast checking mhm. léegi par exemple tey jii yow boo nee coronavirus amul sax bu ñu ko déggee ci internet bi dañ lay porte plainte mhm. yow tu vas tu vas répondre de euh, tes parents. Mhm. yaa ngi dégg nan la nit mu ne concevoir tey jii man damay xool benn situation benn nit bu jógee bu dëkk ba buur di liggéey Dakar bu di wàcc 17 heures amul oto war a dugg ci euh, ci moyen de commune moyen de transport yi. Mm-hmm. mais nañu waxante dëgg tey jii policiers yi arrêté bus Tata boobu ne ko eh taxaw foog nga wàcc. Mm-hmm. ndax léegi fii fu mu ne nii moom boo amul place dangay wàcc. waa jooju il va faire comment pour rentrer chez soi à vingt heures. am problème dëkk bi moo moo dafa feebar. man lu Cheikh Yane si Al Maktoum doon wax naan dañoo war a ndëppal dëkk bi wallaay asim dëkk la. dëkk bi non mais. Ah. en plus lu gën a garaaw ci affaire mooy Aly Ngouille Ndiaye ba muy taxaw dafa wax ñan la décret bi ñan la couvre-feu bi concerné donc c'est pas tout le monde mm-hmm. Mm-hmm. mais hier j'ai vu des médecins yoo xam ne dañoo wàcc liggéey nekk seen oto gars yi génne leen seen oto tey jii professeur Alain méttit loxo tey jii équipe ay médecins yoo xam ne leen jàpp dóor leen tey jii te moom c'est médecin fii à l'hôpital Fann dañ leen a ba ñuy bëgg a parce que tey jii par exemple affaire bi mooy yëfu gumba yi mooy. boolewuñ ci benn xam-xam tey jii par exemple ñoom ñoo ngi wax ne coronavirus bi daa am benn distance bu nga ko war a may parce que un mètre wala. deux mètres la distance sociale. Euh, <laughs> waaw yow da ngay fekk yoruñu masque. yoruñu dara yor seen i liif. di hmm. attaqué nit ko dóor nit kee yuuxu. mu hmm. ngi tufli ci kanamam mu ngi nekk en situation de peur. Hmm. ñu bàyyi yooyu yëpp. di dóor nit yi comme ça dans la rue comme mm-hmm. dans la rue nit yi di cautionner loolu seen i mbokk sénégalais mm-hmm. Mm-hmm. léegi man damay ñaan ñëpp ñi nga xam ne ñoo cautionné dóor yi qu'ils prennent leur responsabilité waaw ndax lii daa am feneen fu mu jëm lii dafa boole ay test yoo xam ne leneen la nous sommes en train de challenger instant yi am na lu ñuy am na lu yi xam nañ bu baax du yëfu jaaxaan donc nag bu sub ba jotee. Mhm. man bëgg naa ñi ma gis ci Facebook bi yëpp. Mhm. ñu may wax ne dañ leen war a confiner da war a tuj seen kër. Mhm. ah bu boobaa man dinaa leen saawaay. yaa waxoon lii. ak fu ñu loo ci wax. ah bu boobaa ndax instant yi day gars yi dañoo indi problème ci problème dañoo indi benn psychose boo xam ne. jox ñu yi le moyens. ñu pouvoir préparer wu. ci affaire couvre-feu te xam naa ne fu ñu jógee mooy buñ ko. buñ ko commencé lawal toute la journée. à ah, dëkk bi dafay arrêté. te policiers yi lu ñuy réew yëpp. Mhm. man dama gis ne daa am dëkk yu daa am zone yoo xam dañ koy tànn ak zone yu dul tànn. Mhm. tamit loolu tamit beneen problème la. effectivement ndax ñoom du ñu dem yoof ci lebu yi. ils ont reçu des consignes non ils ont reçu des consignes. waaw du du ñu bañ a dem foofu. Mhm. ils ont ils ont des consignes respectées respecté dafa am ay ay kilifa ay zones nga xam ne zone yooyu kilifa parce que il faut y a tamit bul fàtte y a une mafia religieuse au Sénégal donc am na fi ay. ah ça yoo xam ne ils sont de connivence avec l' État ils sont ensemble. am na yenn yoo xam ne état bi dafa egg ak ñoom parce que ñoom ils savent se ranger ils savent se courber devant le pouvoir donc y a des réalités fi am. waaw yoo xam ne euh, moo loolu. Mhm. ah mais léegi man imam tey jii man man maa ngi découvrir beneen affaire bu gën a mooy ñun ñii wax naan ñii tëj suñu jumaa yi yooyu. Mhm. pratiquement nga xam ne ñun ñëpp seen décision yi day jógee ba ci France ndax ñun territoire français nañ. Mhm. waa Sénégal man dama gis ne synagogue yu nekk France te ñu. kenn tëjuñu juif est mun ñu ngi di synagogue les juifs sont puissants daal problème ah, les juifs sont puissants <laughs> les juifs kenn est mais loolu c'est extraordinaire. Mm-hmm. ñu ngi tëj jumaa yi église mm-hmm. mais pourquoi les synagogues ne sont pas fermées il y a quelque chose qui qui tourne pas. parce que le capital israélien euh, finance beaucoup d'activités économiques et gère beaucoup de gouvernements C'est ça la réalité. Ah, euh, beaucoup de places boursières. dama gis benn waaye boo xam ne imaam. Mhm. moom lan moo nekkoon lan mooy malchance mooy dafa toog. Mhm. envoyé benn photo ne xoolal synagogue bi. Mhm. mais gars yi dañ ko dañ ko fekk këram ah dañ ko jël si. un français. dañ ko fa jël si. y a ah. même pas une liberté d' dañ koy dañ koy traqué en France léegi. on traque dañ koy traqué te kooku lu mu war a c' se simple dafa dem def benn photo ne xool leen synagogue. tëj. te ñoo ngi nii dañoo tëj église mhm. mais en moins de deux heures. Mhm. patrouille bi ci na ba ñëw jël si ko yóbbu ko. Mhm. def ko garde à vue. nekk ko waaw yow da ngay saaga juif yi da ngay kii juif yi. léegi ñun suñu <laughs> modèle bii ñu bëgg jël imam ñun instant yi. modèle France bii ñu bëgg a coupé ça va pas marcher du tout. ndax France sax moom dafa préparé affaire yi. ndax dugal na trois cent cinquante milliards d'euros. ci affaire coronavirus bi. Macky Sall mu ngi ñuy waxu mille milliards yoo xam ne kenn xamul fu mu ko jëlee. kenn xamul fan la tey ils ont parlé de 64 milliards aider euh, en vivre les populations léegi leeral na léegi nee na c'est pour 1000 ménages c'est-à-dire que on a vivre te 1000 ménages yoo xam ne kenn ku nekk dina am 69000 kon incha allah. d'ici cinq mille xam na nañuy xool. Mhm. man maa la ko imam toogal tuuti ba ci xool nga xool euh, loolu vivre boobu ñuy indil population foo mu mm-hmm. jóge mm-hmm. ce sera des yoo xam ne ay sappoor la jóge mm-hmm. ak USAID ay américains yooyu c' est même pas l' argent du contribu contribuable même pas l' argent de koy jox sax affaire bi gestion parti la <laughs> waaw <laughs> léegi sénégalais yi nag foog ñu yeewu ci benn affaire mooy daa am ñaari affaire tëj nit ñi seen kër du tax coronavirus bi stoppé wu te am nañ ay remèdes yoo xam ne mun na kaa fekk yu simple. garabu nii bii. bu mhm. doon feebar yàgg nañu gis ne dañ la ko doon takkal sa bopp mu weer boo ko mënoon naan ndax dafa weex. la am na ñoo xam ne bu ko sañee naan bu ñu ko naanee da ngay gis résultat yi. Mhm. ndax chloroquine la am. Mhm. hydroxy euh, chloroquine bi ñëpp di coow ni du lenn du mais nag léegi dina jafe pour ñu gis ko. ndax européens ñoo ngi ko war a produire. donc Sénégal attendez-vous aussi seen chloroquine boobu ngeen bàyyi foofu tubaab yi ñoo sàcc foofu. moo tax keroog ma créé sama hashtag euh, euh, touche pas à mon garabu niim. Mhm. <laughs> de boole ak ak noot nebedaay yi. waaw tubaab bi de nebedaay dañ koy woowee. waaw nebedaay nebedaay. du dee waaw du dee ku ah, jël doo dee. ah te mooy moringa bi nga xam ne tey jii ñun am nañu ay possibilité faju mais ak des gestes simples cure mhm. di garafol bi mooy clou de garafol bi mhm. am na ñoo xam ne ñoo xam ne mhm. coronavirus bi daal na leen ñoom wax nañ ñu nan lañ def ba génn ci yoo xam ne billaay walaay kenn ki mu ngi Canada ñoom ñoom xam nañ bu baax xam naa leen sax bi dal na leen euh, wax nañ na lañ ko fajee ñoom parce que la ah, règle mooy dañ ci war a wér la règle dañ ci war a wér ku mës se sibiru c'est noir ku mës se sibiru te système immunitaire ah, am baax du toxkat wax dëgg yàlla ak yenn mesures yu basique mën na si faju mën na wér mais mesures basiques, yo xamné simple élémentaire mais tay jii ñom dañoo compliquer euh, dañoo compliquer terminologie yi ñuy utiliser sax ci coronavirus bi tellement que né boo ko déggee da ngay foog ne lu né la. Mm-hmm. ay nar la. Mm-hmm. ndax ñom na la xamal des fois dañuy rëccal bu ñuy wax ay wax sibiru nañuy wax. Mm-hmm. ndax docteur Ndiaye bobu lu mu doon wax dem ci Facebook yépp à la fin mom waxul ba lay coronavirus. kooku c'est scientifique ay wax sibiru rek. docteur Ndiaye c'est pas scientifique. parce que docteur Ndiaye depuis le début li mu njëkk wax moy ne chinois ñoo ci war wax ndax ñom la dal te li du waxu scientifique mais ah. indiwul argument un loolu ma jaaxal ci affaire dafay analyser xool exercer. Euh, administrer après jël ay jël ay conséquences c' est pas un scientifique. il a reçu xam naa ba ah, ah. dañ ko waaw mais xam nga ñooñu sûrement am na ay lobby yu nekk ci ginnaaw mais lu may métti hmm. mooy bërëb galas yu topp ci docteur Ndiaye ba mën a gëm lu muy wax man loolu hmm. ma gën a métti hmm, parce que ñun dañu war a xool conséquences yu affaire yi di indi ndax tey jii par exemple mënoo confiner des gens yoo xam ne ñoom ils vivent le jour le jour ñoom dañuy dem fu nekk doon dem ils avaient l'habitude de rentrer chez eux à dix heures du soir tey jii nga ne leen huit heures da leen war a fekk seen kër waaw te huit heures bi nga yow déjà yow amoo amoo moyen logistique yu mun a permettre Dakar bi nga xam ne c'est à moins de cinquante kilomètres ndax ñun fii dañuy daw cent cinquante kilomètres aller retour dem ñëw hmm. jàpp suñu ñaamuru c'est comme si c'était rien mu ngi mel nga yow ne damay dem Saint Louis hmm. balaa ngoon maa ngi ñëw fii laay hmm. ñun amuñu possibilité boobu Dakar da ngay dugg foofu nekk quatre heures de temps ci circulation mais tu vas faire comment docteur nañ ko waxante dëgg imam tu vas faire comment non non c'est pas facile c'est pas ah, mais léegi suñu mbokk Sénégalais yi xam ne ñoo waroon def bloc Mm-hmm. parce que tay jii policiers yi ñuy wax ni ñom da am corporation fraternité bu nek si ñom mm-hmm. ñom ñoom ils sont ils sont vraiment solidaires entre eux. Mm-hmm. tay jii bu ñu dóoroon nit bo nit ki dé bi lay wala do xam ko. dañ koy assumer dëgg la dañuy dañuy dafa am solidarité entre ñom ils sont solidaires. waaw di nga di nga dégg police mais tu vas pas sentir sentir parler ñu wax la ben cinq ben single personne. ñu nek dëgg la corporation léegi pourquoi les Sénégalais ne peuvent pas faire un bloc mhm. même bu ñuy wax waxu coronavirus bi tey jii Sénégalais avant tout nous sensibiliser nit yi lan mooy coronavirus parce que coronavirus ñun ñi bëgg a sanal ak seen gel yooyu mhm. raxasal sa loxo yi mais loolu ce sont des choses gelaw dafa lay sàngal sax baaxul na dinaa la xamal am na si xam dafa am gélatine de porc dafa am mbam man man je le ah, dis pas c'est c'est yépp la nag yëpp la dañoo am du xalal sax du xalal tamit dafa am gélatine de porc Mm-hmm. day yàq jàpp mais teg ci tamit en plus naa la xamal benn affaire. Mm-hmm. usage excessif bi day yàq ay loxo. dëgg la dëgg la. loolu c'est démontré scientifiquement. effectivement articles yi ils sont disponibles. waaw kañ. Mm-hmm. léegi tey jii ñu.

en Europe ñoom ñoo fa gën a màgget ci Europe occidentale bi. mais mais effectivement. effectivement et le problème mooy. ñoo dàq tux Europe tamit. <laughs> ah oui italien yi. maire yeeg paa yeeg euh, ñëppay tux seen dënn yi baaxul. Donc, ah, culture mhm. dem dem wax jigéen ak góor paag mère ñëppay tux te corona bi c'est un syndrome respiratoire ku ku dënnam baaxul da lay gaaw a bu situation bu nekk situation bu avancée. ba sa hmm. dënn bi mënul ci da ngay dee. du la fa bàyyi. Hmm. donc ñun après dañuy tourner ci chiffre yi nga xam ne tey jii dañu koo jox ndax euh, affaire bi dafa am benn mafia boo xam ne tu comprends pas. ndax tey italien yi ci boppam. Hmm. italien en trois semaines ñoom dépassé nañ Chine di dem ci ay chiffres. dañuy meew rek en trois semaines. dañuy fen rek yëpp ay meew dañuy fen rek mhm. waaw léegi man dama découvrir ne ñoom seen kii bi dafa am loo xam ne bu ñu gonfler chiffre dañuy recevoir ay subventions mhm. ah mhm. foofu la dil bi ne ils veulent ils veulent ils veulent refaire leur chiffre waaw parce que am nañ dérogation déjà si union européenne commission européenne jox leen dérogation ne lépp lu ñu def comme dépense HAO ñu wax les dépenses hors activité ordinaire kenn du ko dugal dans l' intégration des des des calculs des des des des critères de Maastricht maanaam déficit public yeeg et cetera pression fiscale yeeg yëpp kenn du ko ci calculer waaw critère Maastricht boobu ngay wax Maastricht benn ville la bu nekk ci diggante Belgique ak Hollande. ñoom fa nañuy tenir seen seen euh, seen rencontre secret yu secret yu ñuy def ci mm-hmm. yëpp. Mm-hmm. léegi te jii man dama gis ne Italie dañ leen financé vingt cinq milliards d' euros ci mm-hmm. affaire bi. donc business bi moon commencé doon business bu baax a baax a baax ci ñoom. c'est un bon business. corona bi kay mais rawul leen stoppé. ndax li tax mu stoppé leen mooy tey jii. nous avons commencé à revenir euh, à la norme si une affaire tey dañoo xëy commencé naan une situation bi mooy commencé stable ak yooyu. Mm-hmm. mais parce que dañ leen jàpp la mais dans le sac. Nous avons un philologue bu nga un grand philologue. Mm-hmm. boo xam ne euh, un collègue à Raoul. Raoult. Mm-hmm. dafa fait une lettre gouvernement bi laaj leen. ne leen dama bëgg ngeen wax ma chiffre yi ngeen di avancé ni cinq personnes yi fan la ñu ak taux de mortalité yi yan nit la concerne état bi ne du dégg loolu dañ kaa raje. Mhm, mhm, mhm. dañ kaa raje parce que dañ ne dafay dafay conspirer ay fake news. parce que les tax ñu raje ko mooy tey jii par exemple ñoom dañoo gis ne leen tey jii dañ leen commencé découvrir dëgg seen arnaque bu ñu doon def. <coughs> man leen rek moo ma jaaxal. man Portugal laa déggagul instant parce que xamoon naa les les pays qu'on appelle les PIGS les PIGS mooy Portugal hmm. Italie Grèce Espagne Irlande. Euh, dëkk yi dañoo am ay difficultés économiques yu ngande yoo xam ne ci Europe ku nekk da ngay jéem a xool noo utee le bon événement booy utiliser pour defar say chiffres Portugal la laa déggagul. Espagne gi sant mu tam commencé na yokk tamit. non dinaa la wax lu simple la moo tax Portugal mu xaw a jafe foofu mooy par exemple ñoom dañoo am benn commune une forte communauté africaine. et surtout créole. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ñi nga xam ne ñu médecine traditionnelle boo xoolee ñu fay nekk ay Guinée Bissau Cap Vert yooyu yëpp. te tamit ñoom dañoo am ay virologues yoo xam ne ce sont pas des portugais de souche. Mm-hmm. waaw te Portugal tamit boo seetloo tamit dafa am benn forte communauté portugaise boo xam ne mu ngi France. Mm-hmm. donc ñoom lu xew France xam nañ ko. dëgg ñoo ngi doon ñëw de ñoom ñoo ngi doon ñëw. mais le problème parce que ba ñu jógee ci Espagne doon ñëw. Mm-hmm. dinañ dem ci Grèce dinañ dem ci mais problème bi mooy ñoom découlement dañ leen jàpp la mais dans le sac moo fu mu ne nii seen business bi mënatuñ kaa yëngali ndax rawul da fekk ci biir tëli bi tax ko fa. ne kenn dootu jaar. rawul kay day yàq day yàq liggéey Raoul day waaw ndax moom c'est c'est une bénédiction de xale bu suuf la <laughs> bàyyi nit ñu noppal. Mhm, mhm. waaw waaw moo tax nag tey jii ñun sénégalais fu mu ne mhm. lu ñu mën a def daal mooy ñu concentré wu ñun tey ji coronavirus bi nan nañ ko mën a éradiquer ndax nit yi tamit waxuñu ko coronavirus bi après bu fi jógee ak yéen a banque yi moom beneen problème la. moo moo gën a raw corona. waaw loolu daal laa amoon lu ma ciy wax. macha allah li nga c'est bu baax nañ ci tey bu baax. c'est très important li nga wax nii c'est très important macha allah. macha allah waaw waaw yow koy man maa ngi maa ngi dellu daal dellu sama sama ruq dégluwaat gars yi ndax moom fii moom jàng rek la def. Ah, daanaka macha allah non fii moom c'est da daayira bi daayira au niveau la. Hmm. gars yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek su ñëwee mën na régler mbir yi. donc euh, macha allah nee na daa dugg xalwa dinaa ko génne daa dinaa ko génne léegi incha allah. <laughs> <laughs> macha allah jazakumullah xeyran ziar bi waa kër gi yëpp incha allah. donc euh, kooku sëñ Ousmane moom tamit macha allah il est il est très utile. donc te li mu wax nii yëpp dafa am solo euh, lu mu wax dafa am solo ñi bàyyi ko xel donc y a des remèdes yi nga xam ne ñun fii on a fait un live si loolu benn live ci moom bi nga xam ne ñi mu dal fële en France. Euh, en Italie en Espagne ñoom dugg nañu leeral bu mu leen dalee nan leen def ak naka lañ ko fajee sans garab n'est-ce pas donc euh, psychose bi ñu créé wax dëgg yàlla jaru ko fi woon on essaie de c'est tamit mooy li chaque fois quand un événement se se se se se pointe bu nekk dafa am di nga xam mooy priorité du moment loolu lay jéem a régler comme ay problème économique dafay utiliser événement boobu pour régler waale ay problème économique y am ay problème de démocratie daf koy utiliser pour pour bañ képp lépp li engranger dictature mu utiliser pour régler la dictature il y am ay problème d'espionnage, de de technologie daf si profite tamit confiner gars euh, régler ay montage et les installations. installation am il utilise en fait euh, entre guillemets le fléau nest ce pas pour jéem a régler ay problèmes internes. nest ce pas donc Cheikh Oumar dégg naa ko mu ngi faj Italie bon Basile tal, bon, wóoru

je l'ai dit et je l'ai donc euh, par rapport à li li ni mu sax li ñu wax et bizarrement tey Sénégal dama gis ni ba tey ñu ngi si biir waxi dof yi ba tey euh, bëgg bëgg dëggal n'est-ce pas bëgg dëggal euh, li nga xam ne moo fi xew tey jii li fi xew qu'est-ce qui se passe li fi xew nax nañ Sénégalais yi tëj na leen seen ay kër pour faire quoi yi yu bari xamuñu ko lu tax Macky Sall tëj gars yi seen ay kër am na lu ñuy expérimenté te gars yi yëguñu ko. libérer les ay policiers je l'avais dit fii démb yoo xam ne donné des instructions leen duma leen gars yi euh, duma leen gars les yar parce que yi parce que Sénégal dañoo réew il faut marquer le pas donc ils sont c'est logique et puis la police dans sa communication communiqué bi mu def tey communiqué bi il ose ba tey nekk dans le mensonge maanaam di fen fen mooy wax ne waa gis nañu am na ay les bavures, on a pris des décisions euh, sanctionné leen ba pare lii yëpp sénégalais yi wallahi weesuwul loolu n'est-ce pas dañu yëpp léegi nag cool yi mooy la mesure n'est pas bonne elle n'est pas justifiée c'est pas normal man ba def laa taxaw c'est pas normal ñuy confiné ci seen ay kër guddi ne kenn amul droit génn c'est pas normal boobu mooy première chose bu waroon a am sax ni mu amee du yoon vingt heures xool nit yu wàcc man maa ngi gis ay nit yu wax ñoo wàcc cinq heures six heures di août euh, yoon pour ñibbi mun ñu am oto ñuy dox ci yoon bi ay policiers fekk leen jàpp leen dóor leen dégg naa sax benn waajee xam ne wax c'est assez con ouais, c'est c'est rigolo mais c'est c'est grave te lay renseigner le sénégalais dans sa mentalité ne dafa wàcc di dox di xaar oto mënul am oto 18 h ba 19 h et demi policiers ñëw fekk une ville disperse leen ñu commencé dox moom pour ni moom Pikine la dëkk dañuy def ni Pikine ils ont marché ils ont fait des groupes ay rassemblement yu ngand pour dox dem ñibbi waaw léegi yéen la mesure bu ñu c'était pourquoi la moo tax gars yi tere gars dox guddi bi pour bañ rassemblement et les gens se rassemblent di doxandoo euh, di dem non c'est extraordinaire policiers yi fekk leen ba mu ànd jàpp leen dóor leen ba pare dispersé waat leen saag leen ay ndey dispersé leen ñu ko ne dox dem ba mu euh, sax euh, fàtt naa tur bi kii wu soxantel fi mu nekk noonu si du entre ay policiers jàppaat leen foofu encore fekk leen fa dóoraat leen encore bàyyi leen ñibbi baa yéen man may laajte yéen dóor yooyu euh, golo yi may dégg ñuy kontaan naan wóoy di jubilé naan c'est très bien fait pour ñoom yëpp pour yéen ñii dañoo bëgg nit am na nit ku ko dóor. nit bu wàcc 5 heures doon ko dépense daw war a ñibbi këram ñu jàpp ko ci yoon bi di ko dóor loolu pour yéen c'est normal ban loi moo may possibilité policier mu dóoraatee ma teg ne ku ku violer même pour violer sax la loi de de de bon gré ki nga xam ne moo ko tey pour violer la loi même kooku y a des sanctions yu prévoir dañ ko war a amende de de vingt mille francs à deux cent mille su ma jumul mooy amende bu la loi prévoir wala ñu emprisonné ko un emprisonnement de deux mois jusqu'à deux ans la loi loolu la wax mais la loi musul wax. nañ jàpp ay jël liif di dóor nit yi laaw laa waxu ko mais pourquoi ay golo nekk fi Sénégal di kontaan ci ay nit jàpp di dóor ba dagg yaramu ay ay ay seen ay mbokku nit mais est-ce que est-ce que ñuy seen tête yi ça va je pense park que ça dëgg yàlla je pense pas que ça en tant que nit bu normal ñuy torturer benn nit sax daf laa war a métti ma koy xool fi Sénégal dañoo toog fi Sénégal di am lu ñu metti ci déjà ay peuples yi nga xam ne ñoo torturer dans le monde ay Israël ay Palestine ak fépp ñi nga xam ne leen di amal soutien di mettre lu ñu leen torturer à foutre chez nous mais pourquoi sénégalais di kontaan ci ñu door mbokku sénégalais pourquoi des policiers imbéciles c'est des imbéciles au vrai sens du terme mais c'est de l'imbécilité lii mooy soxor lii mooy mais mais est-ce que ay nit lañu est-ce qu'il est-ce qu'il raisonne c'est la question que je me pose door ay nit ci di kontaan di jubilé ki nga xam ne ndeysaan et puis door bi et puis lan lañ def qu'est-ce qu'on a fait n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on a fait Des policiers, ils n'ont pas de masque. Donc, toute mesure de la propagation, ils ne respectent pas. Ils n'ont pas de masque. Ils n'ont pas de gants, n'est-ce pas Ils ont des livres, des dorki, doraké. Mais c'est des mesures de propagation du virus. Dans la logique, ils ne sont, pas, ils sont pas assez intelligents pour respecter la logique. N'est-ce pas La police, quand ils ont un nombre, quand il s'agit de mater la population, de les torturer ils sont savoir savoir en tant que des imbéciles des di de def lu metti doomu aadama yi agression yi fi am ak ray yi déficit policier amul bu fay gis caserne camp yi nous commissariat yi ak population yi jëm leen bande d'imbéciles qu'ils sont n'est-ce pas n'est-ce pas c'est l'institution que que j'interroge est-ce que l'institution est ce qu'elle colle avec la réalité Je sais que c'est la question Je sais que dama am luma metti lool wax deug yalla metti am na lo trop et puis je me dis, pourquoi 20h par rapport aux habitudes sénégalaises 20h ça, pour un couvre-feu n'est pas normal un bon couvre-feu ça, doit, se faire peut-être à 22h ou 23h Ou à minuit ça minuit ba 6h du matin n'est-ce pas donc 22h euh, à la rigueur mais 20h euh, ñakal ci di génné ko ñew liggéey wacc war dem ñibi man j'ai eu des collègues qui n'habitaient pas Dakar qui habitaient la banlieue ñom né suñu à 4h du matin 4h du matin guen pour am auto duñu excès à temps 8h ici c'est des faits c'est des réalités n'est-ce pas suñu wacce suñu do 5h ñi jël sé auto pour dem ñibi après timis ay gay lañu dañu soga egg à kër yi mais est-ce qu'on a pris en compte ces gens là euh, pour, pour, pour une décision. On va, on va bloquer les gens en couvre-feu de telle heure à telle heure. Est-ce qu'on a pensé à ces gens qui ne sont pas véhiculés Amounou auto, moto, amou dara. Mais est-ce que ce gouvernement-là, est-ce que dans sa débilité extrême, il pousse la bêtise plus loin sans réfléchir Et il y a des cons qui sont là pour applaudir, pour dire oui, bravo, monsieur le président. Mais monsieur le président, c'est l'incarnation de l'imbécilité dans ce pays-là, monsieur le président Mais c'est extrêmement grave dans ce pays. Mais bonne déclin, naka la jullit yéen bi la jullit jullit tey mboqam ngay kontaan si jullit bu ñuy dóor di ko di ko di ko toroxal toroxal jigéen j'ai vu une journaliste bu ñu jàpp toroxal ko n'est-ce pas toroxal ko di ko dóor saaga ko naka ngay humilier une personne di ko saaga ay ndey ak di ko dóor ki nga xam ne sàccul fennul waga jaanewul cagatuwul jaayul drog mais ça mais mais mais ñun ce pays là est-ce que ça est n'est-ce pas est-ce que ça va non man cette police moom man je n'ai jamais eu confiance à cette kan moo rey Abdoulaye Timéra ci place de kan moo rey Mbaye Seck kan moo rey Fallou Sène ñëpp cette police là c'est une police euh, meurtrière maanaam ils sont habitués à tuer des personnes ma police bi xaaruma dara si ñoom sincèrement xaaruma pour ñu protéger ma xaaruma pour ñu protéger sama doom n'est-ce pas donc euh, man wax dëgg yàlla euh, police bi moom pour mën on doit la revoir et li def ñuy dëggal li ma yàgg wax dafa yàgg am ñaari Sénégal fii Sénégal lii moom mës a demee temps colonial dafa amoon des collabos au tubaab les signares euh, ak ak ak seen ay dom ñi nga ñi ñoo nekkoon les privilégiés ñeneen ñi c'était des des indigènes quel faaru leen woon lii moo continuer n'est-ce pas li mo continuer ba indépendance pas avant indépendance ñu amaat ba tey les habitants des quatre communes ñoo nekkoon les privilégiés les autres sont des indigènes yu ñu dara ñu dem ba indépendance passé mo am une caste maraboutique une caste politique n'est-ce pas yi nga ñom ñoo allié ak yenn hommes d'affaires yi ñoo nekkoon ñom ñooy les privilégiés ba instant bi par rapport au peuple réel le peuple réel le peuple instant il est bassiné lascivé Après, le peuple n'est pas assez conscient mais il un métier, n'est-ce pas li kese moomu ci métti donc euh, on n'a pas pensé à des gens mais même si mbedd bi mais gars yi kon ils connaissent ils connaissent très mal le peuple Il euh, y a des gens qui ont ne des lañ Ils ont na koñ yu Ils ont xam ne guddi lañ doon fonctionner ndax koñ yu bëri ñu ngi am man gens connais ñi nga xam ne ñu ngi fii wetu ville jël ma tudd koñ yi ndax su waa day mel ni comme damay stigmatiser koñ yooyu mais koñ yooyu kër yu bëri dañoo bàyyi toggu rèr. te dafa fekk ni dëkk bi prés dëkk bi ñoo liggéeyul moo tax ba tax ay sénégalais nekk fi sen chef de famille amul doole bu mu yore kèrèm, yoree këram añ kese la mën a assuré assuré wul ndékki assuré wul reer lii am na Sénégal ñi nga xam ne ak rèr, ñoo koy assuré seen bopp ñu si ëpp ay ay table ay mer table ñooy ñëw ci koñ bi après timis yi ñëw installé defar ay fondé ay laax defar ay sandwich ay spaghetti ay nangam ak nangam ak nangam ñëpp koñ bi yëpp fa ñu jëndee reer instant bi koku non ñi téré ko mu lal jaay guddi koku ban ndàmpaañ ko jox pour mën yor njabootam ñoon doon jënd ci moom reer naka lay def léegi ba reer c'est qu'il y a beaucoup de questions mais xam ne un état on l'attend pas dans la dans la brutalité et dans l'imbécilité un état on l'attend dans la dans la prévision n'est-ce pas, dans l'anticipation, dans la prospective ni ki balaa ngay mesure sax war nga jauger mesurer évaluer mesure nga am ses impacts ses incidences ses conséquences ak lépp nga mesurer ko paré djel ce qu'il faut pare soo djel. la mesure elle n'est pas juste elle n'a pas été faite pour vaincre le coronavirus il faut sénégalais yi comprendre ko mesure ko tëj gars yi seen 20 vingt heures ba heures du matin jaay doole bii nii du pour xeex coronavirus Le coronavirus nekk lu gudd lay wàllante mesure bi, leneen la te leneen loolu su nañ ci waxtaan incha allah peut-être si fan yi di ñëw ndax li ñuy lal ñoom di ko doxal sénégalais dof ñu xam nañ ko n'est-ce pas donc euh, tey nag j'ai vu beneen image yoo nga xam ne image bu ça renseigne mais image boobu c'est une image de réaction te lu ñuy saaga xale yooyu ne xale yi dañoo réew xale yi ñuy génn di tancer policiers yi à Médina j'ai vu des images ay boy yu génn di jubilé di yuuxu naan eh policier yi ñëw leen di def dóor dàqe euh, chat à la souris ñoom ak policiers pas lini ne je vais pas dire que c'est de l'indiscipline de de ces boys là mais boys ils ont été remontés contre les policiers ba ont di leen di di di di di titiller enquiquiner n'est-ce pas et ça témoigne de ben degré bi la police est très loin du peuple bi qu'il est censé euh, protéger là il y a un fossé entre la police et son peuple et ce fossé là c'est des politiciens qui ont créé na police xool cette bop waaw man dama dama yag wax te dama ko gëm dama gëm dama commencé am yakar man ci police

te xam naa def mais ils sont en minorité dans la police ils sont en minorité la masse c'est des cons et des idiots yi nga dañu raté cette vocation ils ont échoué leur vie C'est des gens yi nga c'est des revanchards dañoo mere société bi dañu bëgg fayu sur la société sagaru tenu bobu ñu sol nak def yaakaar ni ñom yalla lañu té du ñom kessé dans beaucoup de corps tu verras ces mêmes imbéciles qui sont là qui vont marquer euh, marquer sen soxor cette méchanceté nous devons ko mettre en œuvre pour prouver ni man mii les plus neexee de lépp sama loxo la pouvoir n'est-ce pas c'est petit c'est petit c'est mesquin c'est sauvage que dama gis tey une vidéo bu police Maroc je dama ko sax partager, parce que vidéo bi dafa am humanisme dafa am respect n'est-ce pas dafa am nité n'est-ce pas Nous yor seen ay c'est ay haut-parleur di dox ci mbedd bi eh dem ay nous sommes là pour vous nous sommes là pour vous protéger n'est-ce pas nous serons là à vos ordres imagine-toi ay ay ay ay nar, policier ne policier policier sénégalais n'est-ce pas des imbéciles n'est-ce pas des imbéciles méritent aucun respect ils méritent pas d'être respectés a euh, chaque fois bu sénégalais amone foule bu toll ni policier bu fi japp ben ben ben nit ray ko ci lu dul ci yàlla naa dee ray wallahi asib su ko demoon fekk ko kërëm ray ko li du amati mais dañ leen bàyyi ils ont on les a trop laissé faire et man dëggantaan dama nanguwul passivité bu sénégalais yi passif devant ces policiers là ñu jappé ñu ay mbam jàpp ñu ay mala di saaga na ay ñi ñoy les minables les xawma ma les les les les négatifs les xawma ma les di ñu woowee tur yu nekk te ñun ñooy di fay ñun ñooy di fay. C'est l'impôt des sénégalais qui fay ces fonctionnaires là ak ku mënti doon Macky Sall ba ci fonctionnaire fonctionnaire bu a ndaw ñun ñii jaaykatu gerte caaf bi raxaskatu dàll bi raxaskatu les bi ñun ñii di jënd di ñuy imposer TVA sans ñu yëg ni ñi ñuy sur l' sur le revenu des personnes physiques ni ñu sur les impôts sur les impôts sur les sociétés IS di ñu sur des patentes sur des nangam ak nangam xaalis la fonctionnaire eux qui doivent faire fonctionner l'État.

ba dina dafa nar a empiété suñu sujet live xamna ko sujet bi kon euh, live bi kon euh, titre bi il faut ñu il faut ñu changer ko n'est-ce pas il faut ñu changer ko donc Hampâté euh, la war jël ndax Hampâté mom c'est un grand coach bi nga li xew-xew la bu fi am ak mu tëdd sax psychose ak peur bi ñu bëgg tabax ci bop doomu adamay par rapport ak coronavirus bi nga dafa yegul yeggu n'est-ce pas donc euh, di leen ko bàyyiloo xel nag euh, yéen ñi nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk euh, Sénégal bi n'est-ce pas coronavirus il n'est pas aussi extraordinaire que les gars que les gens le disent nee naa leen palu rek moo gën a garaaw li muy rey rey ko n'est-ce pas donc xaama jël Hampâté le grand coach donc mu ñëw andil ñu andil ñu léegi yéen live ci wàllu ci wàllu diine bi baatil baatin on reporte à demain wala après demain incha allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. barakatuh warahmatullahi salam wa rahmatullah professeur eh, ça c'est le grand coach <laughs> eh, mon eh, coach ziar na ah di la di la delo jukkal rek di la wax eh, jërëjëf ndax eh, liggéey bi ngay def di machallah am solo ah, trop trop trop trop di def comme yow ya, rek may nak même me présenter la ndax gaay yu bari instant ñu ngi fi Euh, ñu bëri peut-être fàtte ngeen ko kii mooy Hampâté euh, mës na dugg si live bi nag xaw na yàgg donc euh, muy ku am njëriñ coach la pour ñu xamul coach kii il est développement personnel di booster doomu aadama yi di leen yokk gëm-gëm di leen yokk delloowaay ci seen seen borom man ñoom ñoom Anthony Robbins ñoom ñoom Robert Kiyosaki n'est-ce pas ñooñu ñëpp man garaawuñu ci kanamam moom. man moom laa gën a gëm ni moo gën a garaaw ndax moom dafay wax ak askanam ci làqi askanam di utiliser ay valeur ak ay normes askanam pour mën leen a gën a booster yàlla na ko yàlla dëgëral te yokk ko leer incha allah. amiin eh, macha allah euh, la parole ay entretenue. Mm-hmm. ah oustaz euh, jërëjëf waay kii bi mais xam nga développement personnel moom. Mm-hmm. Euh, ku comprendre Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ko jëkk jàng. waaw mm-hmm. ah, mais. man plus may découvrir développement personnel plus may gëna découvrir kan mooy yonent bi kan moy lan moy islam mhm. di beauté bu ñu am bi ñun suñu diiné ak valeur yi ñu am en tant que africain sénégalais mhm. c'est dommage d'aujourd'hui ma gis ni la plupart de la euh, jeunesse sénégalaise en fait dañ leen maintenir dans une ignorance mhm. en fait nit ñi bëgg nañu bëgg nañu xam bëgg nañu avancer mais ñu bari dañu xamul Mhm. par où passé ndax dañ leen yàgg maintenir si ignorance xam nga léegi léegi nii sa biir wax dégg naa la ngay expliquer depuis temps colon yi est ce que xam nga ni tubaab yi te loolu yaa ils avaient réussi quelque chose. Mhm. pourquoi ñu créé les quatre communes. Mhm. C'était pour psychologiquement diviser les Sénégalais. effectivement. psychologiquement ils ont réussi ils ont réussi ça looloo taxoon.

Senghor réussir loolu aussi tamit mhm. Senghor était rusé Senghor était rusé mhm. man gis nga damay dégg sax am ñu naan sëñ Fallou xaritu Senghor la woon mais mhm. Senghor musul gëm Sëriñ Fallou Senghor daf ko doon use Sëriñ Fallou effectivement Sëriñ tam di ko use daf ko doon use Sëriñ Fallou effectivement gëmu gëmu woon gars yi gëmu woon kenn mais musul gëm Sëriñ Fàllu musul gëm mhm. Sénégalais yi booloo Senghor musul gëm loolu mhm. mais gis nag léegi nag après indépendance bi ba léegi Sénégal indépendance bi ba léegi dafa am benn oligarchie mhm. politico-religieuse bu maintenir le pays dans si benn piège loolu dafa am ba léegi léegi bon loolu benn parenthèse rek la woon mais euh, dama bëgg a wax rek si ñaari mbir Mm-hmm. si par rapport li am jamono ji maanaam feebar bi am ci addina bi di ñaan yal nag suñu borom yamale fii mm-hmm. ak euh, leneen li xew sénégalais parce que fan yii yëpp man ñu bari dañ ma wax lu tax doo def vidéo man leen man moom moment bi dama toll période ba nga xam ni parce que àddina bi dafa nekk si benn bouleversement mm-hmm. j'ai besoin de comprendre certaines choses ba tax damay am benn lecture Mm-hmm. fait des recherches damay déglu yenn scientifique yi mm-hmm. ñu expliquer di déglu aussi tamit diine islam lan lañu jàngal ci jamono bu tolloo fii mm-hmm. naka la jullit war a porté woo genre analyse yooyu laay def quoi dama copain Ousmane daf may tooñ sax quoi parce que léeg-léeg ma woon ka ay ay ay xorom polle fii ay ay ay <laughs> affaire traditionnelle parce que man maa ngi Canada mais j'utilise ça par exemple man chaque matin damay jël abadou sawda li si yonente bi salaa salaam wax abadou sawda man dama koy jël par exemple mhm. boolek ak miel moom lay jël mhm. algion loolu rek suñu yonent salaa salaam nee ko dee rek la dul faj dëgg la xabatu sawda c'est la grande niche dëgg la xabatu sawda loolu rek benn exemple la mhm. am na leneen lu bëri lu ñu mën utiliser donc man dama ni nous les africains nous les sénégalais gis nga feebar bi ñu ragal quoi amuñu lu ñuy ragal quoi grand man j'ai pas peur feebar bi en tant que jullit rek man sama diine lu ma sant Mhm. aw ma lu may tiit. Mhm. aw ma lu may tiit te yonent ne salaa na sax mbas lii bu amee jullit yow boo ci deewee sax shahid nga. donc faut pas avoir peur. man yu'min billahi wal yawmil aaxir ñoom day alxuraan nee na falaa xawfun alayhim léegi nag dafa am leneen nag si am gis nga. Mhm. c'est bien préparé. gis nga psychose bi humanité bi nekk nii maanaam panique bii nii. c'est bien calculé. parce que y yaa am na yu ñuy préparé am na yu ñuy préparé. Mm-hmm. léegi nag gis nga nag euh, le cas du Sénégal. Mm-hmm. lu tax policiers yi génn ñi doon dóore nii nii nii. Mm-hmm. depuis hier man dafa am lu ma ci jàng. et je le dire quoi si. si lii peut-être dina. du neex ñenn ñi mais. li ma ci jàng xam nga mooy lan. moo di gis nga. oustaz gis nga virus bi. waaw et ses conséquences. Mhm. dina emporter beaucoup de gouvernement. Mhm. Mhm. ku am lecture. virus bi et ses conséquences. économiques. dina emporter beaucoup de gouvernement et Macky Sall est très conscient de ça. Macky. posez-vous une question lu Macky Sall ku xam Macky Sall lu Macky di recevoir l'opposition Mm-hmm. xam na bu baax lu muy def. Mm-hmm. bu yaakaar ne Macky dafa dof <laughs> Macky doful de. Mm-hmm. xam na bu baax lu muy def parce que instant bi moom réew mi dal moo ko arrangé. parce que y a une chose gis nga am na ñu bari dañ naan peuple sénégalais dañoo passif du tax duñu ñu jéngu dañoo ragal non peuple sénégalais ragalul. mais peuple sénégalais dafa yeggagul ci miir bi. bis bu yeggee ci miir bi. dina jàmmarloo ak ñoom. léegi nag gis ne lii yëpp nag ñoom ñuy def mhm. man pour man genre intimidation pour tester gars d'ici mhm. après mhm. parce que les les conséquences économiques yow tu es un économiste les conséquences économiques loolu moom kenn du ko weddi luy am la commencé na waaw dëgg la commencé na am ci bi bu même les pays développés ñoom ñoo nekk problème par exemple fii Canada instant l'État a débloqué pratiquement cent onze milliards de dollars. Mhm. mais teewul instant bi canadien yi ñu ngi nekk ci benn peur psychose bu doy waar. crise bu doy waar. Mhm. Donald Trump xam lan la wax tey nee na pak nee mhm. maladie bi dem ñàkk dem day ubbiwaat économie bi yoonam new ci. parce que ñoom ils sont conscients de sa léegi nag wax ji mooy la cas du Sénégal. moo di. c' est un peuple ba nga xam ni système de santé bi zéro. Parce mhm. qu'il n'y a, pas jamais, y a jamais eu d'investissement. C'est une dédication, zéro, parce que nous sommes investis. L'emploi des jeunes, zéro, nous sommes investis. Mhm. Mais il y, a ce qu'on appelle en développement personnel la loi de la. Euh, euh, euh la loi des causes à effet. Mhm. Action-réaction. La causalité, Comme nous, nous avons fait l'effet moom leen di fekk si te ñoom xam nañu effet baa ngi ñëw. Hmm. te gis nga nag euh, prof man damay wax benn affaire quoi dama naan. Hmm. suñu borom moo téemaani ma ni xoli virus bi. Hmm. virus bi xamul ku ñuul xamul ku weex xamul riche xamul pauvre. lenn moom leer na ma ñoom ñooñu nekk foofu doon sàcc alalu réew mi ku si virus bi dal moom leer na ma doo dem France. faju ji. Ah doo dem France faju ji donc. seen milliards milliards yu ñuy sàccee tout ça du leen jëriñ dara. Mhm. te problème bi nag moo di. impact économique bu muy am après sur la société sénégalaise. Mhm. loolu l' état ni état bi mën na ko dékku. Mhm. loolu c' problème ba nga xam ni. ñu bëri baawuñ ci xel mais problème la ba nga xam ni mu ngi ñëw. donc man dama jàpp ni instant bi gis nga bavure policière yi yëpp c' est pour. jéem peeg gars yi jéem natt gars yi xool ndax gars yi daañu ñeme après jéem. tout ça yëngal wala du yëngal di yëngal daañu yëngal wala di yëngal mais ñoom mm-hmm. ko mm-hmm. parce que peuple bi bis bu yeggee doo au mur. Mm-hmm. dina dina yëngatu. parce que gis nga nit mën na muñ lu nekk mais gis nga xiif. xiif. xiif noonu peuple sénégalais mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko dëgg-dëgg xiif a ko andi woon. très bien gars yi dañuy fàtte loolu. Ah. dañuy fàtte loolu man sànq maa ngi si waxtaan ak sama benn xarit bu nekk Ottawa. Mhm. man man dama naan mais nit ñi bu ñu amee lecture mais l'histoire se répète. Mhm. l'histoire se répète. Mhm. c'est-à-dire li xew nii si àddina bi xewoon na il y a cent ans xewoon na il y a deux cents ans. dëgg la dëgg la. donc histoire bi bu répété nii. révolution française lii moo amoon avant révolution bi. mais ba mu amee qu'est-ce qui s'est passé benn état bu bees moo am France motax mhm. dama ni gis nga lii nii nii nii mhm. nii je sais pas mais je sais que ni Sénégal nu ñuy dundee dina changer c'est vrai xaw ma naka nag mais dina changer moom ils veulent le changer sax léegi ñoom nag lu waaw ñoom man man j'ai des échos ñu nga ampaté man j'ai des échos que que même Macky Sall dans le dans leur programme ñoom ñu ngi xalaat comment après sax cette crise là comment lañ nar a continuer et régler les sénégalais ba dañoo bëgg supprimer marché yi marché yu yàgg yi les marchés traditionnels ak jaayu mbedd bi gars xat comment le supprimer après problème yi motax euh, confinement sen genre confinement beeg yëpp ñu ngi préparer yenn certaines habitudes yi moom lañ bëgg amal ndax les grandes surfaces ñu ci bëri instant yi amaat nañu contrat am na yeneen ñaar ñu bëgg ñëw Sénégal après ñoom Auchan Carrefour donc aujourd'hui il y a des pourparlers qui se font sur le, sur le terrain économique té instant yi kenn ñemeew ko kenn xalaatu ko analyser parce que ñëpp tiit ah, on a créé la peur pour kenn baña a xalaat si yoonu dëkk bi instant yi te aussi aussi am na leneen la leneen lu am wax na keroog wax nga ko sa live te loolu addina bi fa la jëm. Mm-hmm. mooy er, dafa am la nga xam ne buñ ko seetloo. Mm-hmm. mu ngi commencé am si réew yi moom mooy la nationalisation. Mm-hmm. de chaque pays. dëgg la Italie instant bi Italie. li leen dal. je sais ni Union européenne la suite dina am problème. effectivement. la suite dina am problème Donald Trump. constat mu ngi ñew Donald Trump mu ngi gëna replier si boppam. Mm-hmm. maanaam America first. Mm-hmm. Canada tamit la même chose donc mm-hmm. mais nous les Sénégalais nous les Africains nous. lan la ñu def. C'est la c'est la question. si on avait lenen luma C'est la demal. légui troisième chose bi mu bëgg wax bi dans le dans dans le domaine du développement personnel. C'est par rapport à la peur c'est par rapport à la panique. Mhm. parce que li may expliquer c'est des études scientifiques vérifiées. Mhm. parce que dañuy wax ni ci doomu aadama dafa am ñaari hormones yu nekk ci doomu aadama. Mhm. hormones yooyu noonu benn bi mooy adrénaline. beneen bi di cortisol adrénaline moom mooy hormone boobu nga xam ni. nit ki supposé nga nga tiit rek janoo gaynde tiit boobu ngay tiit. loolu mooy adrénaline loolu day tax. tey sa yaram sa cerveau day sécréter hormone boobu pour nga mën a taw mhm. utiliser toutes tes forces. Mhm. foofu dootul l'intellect mais foofu c'est la survie. survie la instinct la survie. Mhm. waaw instinct survie. mais beneen hormone bi gën a bon moom lañ naan hormone porte de toutes les maladies mooy la cortisol. léegi hormone boobu des scientifiques on la science a démontré que ni. accumulation de stress ci nit day dem ba nga xam ni. day day day déclencher tous les gènes yuy indi maladie xam nga Sénégal da ngay dégg parfois ay nit naan ñun suñu famille famille diabétique la. Mhm. man mii dama ko doon dégg wala famille bi famille ñëppay am tension. en fait mhm. dañu naan par exemple sa papa bu amoon diabète yow am nga ay gènes diabète ci yow. Mhm. mais gènes yooyu day nelaw. day nelaw mais accumulation de stress boobu avec le cortisol. gènes yooyu day déclenché. mooy tax nga am diabète ça devient héréditaire. effectivement mom la mom la mom la mom la mom la docteur kii di wax quoi Bruce Lipton mom lay wax. Mhm. am ah, mom la nan mom la tuddé l'épigénétique. Mhm. l'épigénétique donc moma bi mhm. man limay conseiller chaque sénégalais mooy loo mënti def moytul le stress. le stress mom instant bi mom dama nan ku si nekk na ko moytu. Ah, man chaque jour mboq chaque jour mboq gars yi ko. consommer des antioxydants waaw. Ah c'est ça. Mm-hmm. loo mënti def defal loolu mais stress moom moytu parce que mm-hmm. instant bii moom. Mm-hmm. moo gën dangereux. parce que plus ça nga stressé plus tu es exposé. plus tu es exposé fan yële maa ngi déglu ben documentaire bu ben scientifique def muy expliquer si coronavirus bi la doon wax quoi. mu ni moom lu muy conseil jamono ji mooy lan nit ñi. nañu revoir nous ku nekk na nga revoir yow sax. rapport bi nga am yow ak sa yaram. Mhm. comment tu vis. Mhm. est-ce que di ngay nelaw lu doy. est-ce que di ngay lekk lekk une alimentation équilibrée riche en vitamines. Mhm. parce que le plus ce système immunitaire. baax. plus coronavirus bi du la daaneel. dëgg la. du hasard du hasard lu tax coronavirus bi di gën a rey ay màgget ak tuxkat yi. parce que effectivement day attaque say sa poumon yi lay gën a attaqué te sa système immunitaire bu faible. Mhm. loolu loolu yooyu lay attaqué donc man li may conseil ku nekk moo di. Mhm. confinement bi man dama ni c' est l' occasion. c' mhm. de de retourner à l' essentiel. bu si nekk retourner à l' essentiel yow sa bopp. xoolal sa rapport sa diggante yow ak sa borom. xoolal sa rapport sa diggante yow ak sa famille xoolal sa rapport sa diggante yow ak say waajur. c'

parce que même fii Canada psychologue yu bari ñu ngi commencé inquiété wu ñu ngi naan nit ñu bari. Hmm. ñu ngi commencé ennuyé wu seen biir kër ñu ngi commencé am problème. dëgg la te dañuy ragal nag ñuy am ay pensées suicidaires. Hmm. donc man lu may conseil nekk sa quotidien fexel nga occupé que si la nga xam lu proactif. Hmm. mën ngay lire livre. wala déglu alxuraan wala déglu ay waare. wala jàng alxuraan wala di door dox. waaw di def ay dog wala di def ay dog mm-hmm. dem si yàlla parce que c' est l' occasion est le mm-hmm. moment mm-hmm. def ay istixfaar def ay salaatu alal nabi ay salaatu fatihi def lu nekk mais daal fexeel ba bul bul consacre sa temps si la nga xam ni amul njëriñ ci yow loolu day créer facteur de stress la loolu facteur de stress la. Mhm. loolu daal oustaz loolu. loolu laa amoon envie vraiment. Ah partager ko di jégalu aussi bu dee bu dee bu dee guddal naa. ci non non dafa am njëriñ c'est très important. ñu on partage rek dañuy waxtaan parce que temps yi sax du ay live mais dañuy partager parce que gars yi sont confinés. donc man daal li may wax daal. Mhm. ñun sénégalais. Mhm. sénégalais la africain jullit dañoo am science am nañu diine islam. am nañu suñuy valeur am nañ suñuy médecine traditionnelle mhm. je te jure ku xam sa bopp doo tiit waaye feebar bii duñu tiital mhm. feebar bii du war nañu tiital mhm. boo defee la nga war a def dèjà rek dèjà rek oustaz pour ma tëjee loolu njàpp rek njàpp lan la si yonente bi sallallahu alayhi wa wax nee na njàpp dafa mën a nga dëkk ci buntu dex suba soo yeewoo nga sangu fa juróomi yoon wallaahi wallaahi kooku day mais est loolu salte dina la dugg du am benn salte doo am salte donc yow jullit bi boo xamee sa bopp doo tiit tubaab yi ñooy tiit nii parce que ñoom gëmuñu amuñu yàlla foi effectivement dañoo dàq yàlla seen yàlla dañoo dàq yàlla seen quotidien kooku c'est normal muy stress man man fi may fi may liggéey nii avant ñuy arrêté même samay collègues yi dañ naan ma mais yow pourquoi tu es tu à ce point man leen mais man leen man man je suis musulman I'm with God man leen I'm with God God's my protection. di ziar gay yëpp <laughs> di nuyu gay di nuyu tamit sunu sister aisha sunu sister mhm. aisha di ko nuyu waaw di nuyu gay yep ya, aussi tamit wa dara ji ya, di sakku ñaan di leen ñaanal aussi yàlla sunu borom suturaal sunu rew sunu borom suturaal bepp julit mu nekk ci adina ba bala bi da sunu borom def mu di ziar ñëpp way oustaz asalaamaaleykum kontaan nañ ci waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Donc, euh, qui est le grand coach, n'est-ce pas, euh, le grand coach ampati, le sahélien, qui euh, waxtaan bu amjiring, njëriñ euh, di di rappel bu am solo euh, jullit warul mën a tiit gëm ni yàlla nee na fa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun wa sama jami yi ci man waxal ni man dama jégué yalla bi la jégué nek sa premier dëkkandoo gën la jégué sa buumu xol yàlla boobu bu dee yaa ngi tiit yow da nga gëm ni kon yàlla boobu nekku fi bu da nga jàpp ni yàlla nekku fi nag wax dëgg yàlla war ngaa a tiit ndax fu waaye nekk nekk fa moom en tout cas ma ne su ma demoon fenn fu yàlla neewul dinaa tiit waaye fleg maa ngi xam ne allah mu ngi foofu rek wallahi azim mënumaa tiit ndax lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa mawlana juj war lu mën a tiit ku am yàlla mënul tiit kuy jaamu yàlla mënul tiit euh, confinement wala ñàkk confinement yam pour man c'est l'occasion yàlla daf ñu waa daf ñu woowaat ci beneen rendez-vous n'est-ce pas daf ñu wat ci ben rendez-vous moy delu wat len ngeen xolat seen bop ngeen gëstu seen bop yalla mu ngi andi ay bala bala yaa gën beuri di bok na ci ay phénomène u axiru zaman waxon na wax na ko fi defañ fi ben live fi ci akhir zaman n'est-ce pas donc ci feebar ni mo wara a ci guerre ni mo wara a ci nangam ak nangam yi yëpp wax dëgg yàlla euh, ñun warul nek lu bees pour jullit en tout cas nous avons été avertis avant ku nek nak ku am longueur d'onde en avance nak kooku wax dëgg yàlla warul tiit waaw euh, Bassirou Tall wa wa si si inshallah allah donc euh, dinañu changer titre live bi donc euh, dafa melni ni dundu yalla yàlla wallahi alhaji salif ah kii moom c'est le grand c'est le canadien <laughs> salif ñu ngi lay ziar wallahi bastal yalla xamal ñu ne man ñaan len ma hmm? addu uni addu uni astajib lakum yeen ñaan len ma rek man na len nangul wa su ko yàlla wax na la yow ñaan ma na la nangul wala lu tax lepp lu ñu jaaxal mu tital ñu wala mu wala mu metti ñu lu tax duñ ko diis yàlla nañ delu ci yàlla pendant qu'il est encore temps ndaxte dund gi yàggul gis nga rek aduna baa ngi nii benn virus bu ndaw la saay-saay yu gën a ngand sukkandiku ngir bëgg a def ñu lu leen neex n'est-ce pas ngir bëgg ñu def lu leen neex ñoo ngi nii instant def lu leen neex avec le consentement de tout le monde n'est-ce pas donc euh, macha allah wantaar xam rahim wallahi maa di si nga wax lu wér la donc euh, mbiri dal nañ ci set yalla nañ ci xaar suñu bop nañ ci gën gor góorgóorlu yeen ñi nga xam vous êtes confiné gën leena jang gën leen ubbi sen alquran jang leen ñu ci bari gën nañu ubbi kamil nest ce pas jang leen teel sen course ñaan leen nest ce pas euh, delloo leen delloo leen mbiri yalla ngeen xamni fi dara nek fi dul yalla deug yalla ah wallahi suleyman sek wallahi lu wér la wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid nest ce pas ça wallahi yàlla ne maa ngi gën a jege seen veine jugulaire yi maa ngi gën a jege donc nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel donc euh, waaw suñu live bi nag kon tey moom mujj na kon euh, titre bi kon changé na donc euh, xam naa ko nañ ko tuddee rek coronavirus actualité sur le coronavirus waaye rek la violence policière waaw pourquoi pas Kojouto waaw pourquoi pas on va faire la violence policière incha allah parce que dëgg yàlla violence policière bon man dama japp ni il est au cœur l'activité administrative man l'état l'état qui est ainsi fait c'est l'état, nest ce pas C'est l'état, euh, dans tous les corps on a le même comportement dans tous les corps on a le même comportement corps bu nek jàpp nañ tam moo gën ci administration mo ngi pour situation am gën a ce pas donc man policier xamé nak tam nañu euh, di satch alu mbolo tàmm nañ nekk si tali bi di sàcc 1000 francs ak 2000 francs wu góorgóorlu yi ko xam nga ni rey ñu ak bañ ñoo rey lañu yemale man nii moo tax wax dëgg yàlla yaakaaruma leen te xaaruma leen n'est-ce pas policier bi nga xam ne sañ naa rey euh, góorgóorlu bi sañ naa sàcc 1000 francs nit sañ naa sàcc 500 jël ko lekk ko jël ko yóbbu ko njabootam ndax tali bi la taxaw kooku wax dëgg yàlla kooku suñ ko ne dama nga dóoraate moom xam naa daf ciy kontaan c'est léegi nag euh, jàpp naa ne lii am instant bii pour man lu inédit li nga xamé gaay sax mën am xol ni ko bu baax waye li do na war juma yi ak situation bi té dara dara dara dara dara justifié ko dégg ngeen dé Sénégal ku dé ci coronavirus ta ñu depuis le début ñu koy am xam nga dafa am li nga xamé yene mesure yi xamni ki bu ko jëlé da ngay analyser mesure bu xol mesure ndax yenn na mana mesure état Sénégal jé ben yanu ci mana ben ben wax deug yalla ben waaye nag alhamdulilah comme que nag nit yi ñoom gis nañ normal kontaan nañ ci bég nañ ci Macky Sall li muy def est ce pas donc ba Macky Sall lu eh, tax sax eh, jële décision di dóoraate ñëpp a ngi kontaan di applaudir donc ah su fi amee ñu dee lu ñu fi rey lu eh, ñu fi gaañ dama jàpp ni ñu bëri rek dafa dul seen papa rek waaw ah, du sa papa du sa doom du sa mag oh, wala du sa rak du sa xarit mu ngi sa sa doomu ndey du sa sëriñ lañ ko def ndax buñ ko defoon ñii jàpp leen jël ay liif dóor leen parce que ñoo génn kese wax ah, dëgg yàlla ah, kon mun naa am gars yi xaatee neneen xam nga li gën a bon nag mooy nit ki nga doo am loo metti fi laal la yow li c'est le comble de l'égoïsme n'est-ce pas égoïsme bi instant yi dafa nekk ci ADN sénégalais yi n'est-ce pas donc euh, dafa nekk ci ADN sénégalais yi ñuy wax l'égoïsme tant que laalu la pour man c'est pas méchant tant que ñu koy def ñeen ñi rek defuñu ko yow mo alhamdullah tu peux cautionner n' ce pas xet eh, nak askan waruñu xalaatee noonu yàlla binduñu pour lolu yalla ñu bind pour ñu nekk ben umma pour ñuy wante ngur ñuy dimbalante ngir ñuy wante ngir ñuy amante yërmande suñu biir ngir ñuy bëgg jëmando kanam waaye ngir ñu jël yàlla def ko suñu kilifa jiital ko instant Sénégal war nañ ginnaaw yàlla ci crise bu ñàkk fayda bi kese li ëppoon sawñun lu ñu am n'est-ce pas sànni nañ ko ci àll ba mooy mooy suñu jumaa yi suñu mbooloo yi maanaam mbooloo yoo xam ne ñu ngi ko amoon ci yàlla man tey sama mel ni man dama mel ni dama am corona bi de bëgg naa déglu xalaatam eh oustaz Dabo maam malik waaw léegi kon dafa mel ni suñu live si baatil ak baatin on va reporter à demain wala après demain incha allah parce que demain moom Euh, demain ñun on a Boustane demain jeudi soir ñun ñu ngi si mbir yi donc xam naa ne demain moom euh, damay dem ñun moom dara duñu euh, couvre-feu lu mu lu doon duñu teree dem xam naa nag suy demee duñu mën a ñëw ndax comme couvre-feu la di nga a toog foofu ba six heures du matin rek <laughs> waaw macha allah yal na yàlla defal ñu tawfiix incha allah yal na yàlla yokk ñu jàmm donc su leen dégloo comme que déglu ngeen gars yi lu ñu lu ñu exposé am na solo trop trop trop Euh, macha allah ñu bàyyi ci xel bu baax a baax euh, ndegaan sàll ñun dañoo occidentalisé on a une élite occidentalisé bi xam ne ñoo jàpp ne ay tubaab lañu n'est-ce pas euh, waaw direct Ousmane nen na gars yi baxal garabu niim ñu ko am n'est-ce donc na gars yi baxal garabu niim donc am na ku ma waroon de. amna ko waron dugla de xoma kan mo waron tam dugg balaa ñuy on ko instant temps bi mom nous sommes pas encore donc donc doy na waar Souleymane Sonko bi yow kese de ken d'accord le gouvernement bi ken waaye nak li gëna metti nak te gëna ñaaw moy population yu ànd ak ñaaw eh, ki fi man loolu moo gën metti do waroon ci bàyyi xel waroon ci bàyyi xel donc euh, Euh, il n'est pas là il a raison les chiffres sont gonflés n'est-ce pas donc euh, les chiffres sont gonflés Cheikh on Ya. siapa yow amo droit à rien? c'est pas normal ça yow ulo mënti def da ko war a da nga ci war a bàyyi dina si am solo comme ça mu tëj waaw pourquoi pas xam nga andi xam andi Cheikh Baye waaw parce que jamono bii ñu toll sax dañoo gën a toll si ñaan dañoo toll si ñaan di gën a ci nit yi di ñaan daf ma te oto bi waaw oto la fee bàyyi <laughs> mais gars ñu lay réclamer nañ mën a dugalal Cheikh Baye donc euh, gis nga climat bi le défi yow yaa ngi waxu climat donc ci climat bi euh li nga wax lu am solo la kuruma ndaw lu mata a xel la lu mata a xel la sur le climat donc euh, ndax le climat gars yi ñu ciy liggéey instant yi ñu def lu bëri bëri xaw ma vous avez entendu les les armes de modification climatique n'est-ce pas jaaxul len ren bi ni 2020 lu 2020 avec les combats de réchauffement climatique, avec l'accord de Paris, avec l'accord de Nangam, avec l'accord. Diakhol, pourquoi le climat a presque changé un peu partout Sénégal, fi diakhol, pourquoi le climat a c'est de niveau vous, vous trouvez ça normal vous trouvez ça. C'est que vous trouvez ça normal, on doit le on doit se taire. Donc, il euh, y a lol. Wow, nga dañu andi Aïcha. Ani Sona Aïcha. Donc, euh, soxna Aïcha. Soxna Aïcha dana ne nga jaar fii Soxna Aïcha nag moom ragal la de <laughs> Soxna Aïcha ndaan la de Soxna Aïcha ponkal la nag ci ndaan la bokk de bañkat la xeexkat la asalaamualeykum wa rahmatullah waaw léegi nag tey moom yow la jox tey yaa war a tëj ci fàttal yi ci def synthèse ci waxtaan ci laajte biir ndax yow mënoo nekk coach chaque fois après doo dugg jamais. ah connexion bi da ah, ñu lay dégg. waaw léegi maa ngi lay dégg. ah macha allah ah, marhaba yaa Seyda na def ak coono. sant alhamdulilah. ah mais dafa mel sa baat dafa xaw a changé de nu mu ne baatu corona. no man <laughs> no man corona jarna ko jalan? man si bruna kay corona kay bu ñëwee day waay yàgg naa leen nyenyap, wax ñeen ne corona bi. sénégalais hmm. yi niñ leen ko impo dañ leen ko imposé waaw te corona du lu xamante ne ni war nañ ñëw yóbbu seen fit parce que si bru moo gën metti corona li hmm. nekk sénégal te ñu war ci wax mo bari ñu hmm. waroon maladie lu ñuy la rek -hmm. c'est que ni muy jappé tubab c'est parce que tubab yi ils ne sont pas disposés par rapport ak feebar bi mm-hmm. euh, tubab ñemewul grippe mm-hmm. et c'est la même chose même symptôme yi la xanaa kay bi dafa am leneen lu ci rax bu jaar ci ay poumon loolu rek la mm-hmm. li ñu bëggoon a imposer nag Sénégalais yi bokk leen seen kër loolu mënta nekk Macky Sall li muy def mooy copier coller français yi et loolu Euh, je pense que du loo xam ne war na ci dëkk bu mel ni Sénégal français yi bu ñuy toog ñun bu ñuy toogloo suñu kër day am lu mu àndal. Mhm. ñun fay ñu courant. Mhm. fay ñu en fait utility bill yooyu yëpp tegal nañu ko de côté te wóor na ma ne fin de mois bu jotee dinañu yónnee chèque. Mhm. Macky Sall du def loolu ñun ñun ñëpp lañ koy defal. du ko defal kii bàyyi kële. ñun ñëpp lañ koy defal. amul fay rent amul fay dara ñi ngi toog signé nañ ko tey. Mm-hmm. donc ñun buñ ñu toog loo ñu toog. Mm-hmm. mais loolu amul Sénégal. dëgg la. ku xëy suba dem marché boo <laughs> xëyul fajar 11h nga yónnee sa kër dépense ñooñu duñu lekk. wallaay de sax. ma loolu dafa metti kooku boo ko bëggee toogloo fu nit ñi jëm. wallaahi nappkat bi amee foog mu génn 3h du matin. dem sànni génn 3h du matin léegi. vraiment ah, léegi oto yi problème mu oto yi problème mu surcharge borom oto yi dawalatuñu parce que mm. ñoom comme oto bi du fees du def bénéfice mm. ñu wàññi seeni oto wàññi la daan yéeg ci oto yi léegi ki nga xam te liggéey yi woon na war a ñibbisi nu muy def. Mm-hmm. nañu yërëm sénégalais yi sénégalais yi sonn nañ. Mm-hmm. Mm-hmm. Mhm. vraiment nit dafay am yërmande. kuy choisir président vraiment na seet koo xamante ne ni wax dëgg yàlla mhm. am na tuuti leer am na tuuti yàlla ci xolam. parce que nit ki tamit bu amul yàlla du leer du du am yërmande. dëgg la te lii ñuy traité sénégalais yi vraiment amul benn lenn lu ci fu ci yàlla feeñ amul. dëgg la ñi koy dañoo bañ yàlla sax ay noonu yàlla lañu. Ah, Macky noonu yàlla la ak ay muslim waaw ñoom que noonu nekk noonu yàlla mënta weesu. Mm-hmm. dëkk ak bu ñu julliwul sax nga bàyyi dëkk ba ñu fay nodd. wallaahi wallaahi. même bu ñu ñëwul julli si ci jàkka ji. Mm-hmm. nga bàyyi nodd bi nit ñi di ko dégg di fàttaliku suñu borom. mi mm-hmm. la yow Aïssa yow loo xalaat suñu suñu suñu soi-disant imam yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg neexal Macky Sall mm. dem def ay communiqué ne seen jumaa yëpp bu leen tubbi bu leen sax ubbi bu leen nodd parce tamit c'est des imams qui ont fait ça. mais xoolal gis nga imam yooyu fii nga leen gis barki démb ñu dem mu dem ca pale ba ñu invité leen ñu ñëw te bañ fa toogee waxaluñu peuple bi parce que imam en fait imam yi dañoo nekkalul peuple bi te imam yi ñoo war a nekkal peuple bi. Mhm, mhm. lan mooy imam mhm. lan mooy mosquée bi. yooyu yépp nag su fekkonte ne xam nañ ko tey jii duñu am ci pro ñu nekk ci problème yi. wallaay wallaay dëgg la waaw wallaay dëgg la. ah dëgg la. ah kéemtaan la kéemtaan la sénégalais nak ñoo ko def mën naan bu yàgg hmm. njit dañ ko wara tan dafa am responsabilité ci tan njit njit nak dañ dañ nga wara xol ci mom jikko yu yu rafet gis ci mom yermande gis ci mom yiw gis ci ñom xam-xam bu dee li yëpp gisoko ci njit ba pare nga votel ko tu es complice lepp lu ñaaw lu mu def tu es complice Uh, fii nag Sénégal nag c'est y a des co co y a des complices par rapport à tout ce que Macky Sall est en train de faire Macky xam nga ni ba ñu saboté yonte bi sallallahu alayhi wasallam caricaturé ko mu jël otom dem di massaw ñooñu am problème ne moom mu leen di jàppale ci xas bi ñuy xas yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu war a xam mm. ne kon Sénégal vraiment Sénégal eh, njiit bu mu am du julit waaw ah, chaque fois yàgg naa ko xam naa information la Macky Sall boobu nag mm-hmm. Macky Sall boobu moo dellu si waat tëj seeni jumaa ngeen ànd ak moom waaw ah, wallaay wallaay ndeysaan c'est war nañu seet nag war nañoo seetaat suñu bopp bu ñu jógee ci lii parce que affaire bii leneen la boo leen jógee ci lii après corona bi waroon a la war a xalaat mais sénégalais dañ leen di jox rek tey jii rek ñu consommer. Mmh. mais après corona lii lan moo nekk ci biir corona dara. Mmh. man de yàgg naa ko wax mën daal sama position mooy. Mmh. coronadu du dara jaay benn affaire la rek bu ñu teg seen kanam. Mm-hmm. di leen jaay leneen lu xamante ni suba la corona ce n'est absolument rien ay affaires yu ñu bëgg a placer dong la mm-hmm. nañ xaar ba après corona bi foofu lay méttee mm-hmm. après corona ah de de mbir bi de en tout cas yaa yaa des incidences économiques yoo xam ne déjà proche yoo xam ne commencé na am gis nga ni déjà le capital soo seetloo les bourses européennes États-Unis mm. seen seen Nasdaq mm. yeeg toutes les bourses Euh, Amat na instant ay croissance ñëpp génn nañu ay huit à dix pour cent y a encore un retour à la croissance dans les marchés financiers Espagne mais Espagne sax France euh, Angleterre Belgique Suisse tous les marchés yéeg nañu il euh, y a des fonds colossaux yoo xamé sanni sànniwaat nañ ko dans l'économie n'est-ce pas donc l'économie euh fi tammi Sénégal kasaalika ñu ngi duggal xaalis parce que BCEAO jël na ay matukay waaye fi muy uh-huh. dem ben sénégalais xam ko du ko yëg Sénégal bi ci bopp moo ko lay profité c'est des banques étrangères ñoo nekk di profité instant yi ci injection de liquidité yi nga xam ne banque centrale fas yéene ko def hebdomadairement ci ci ci ay ay ab ci ay euh, séance am ay banque koy jël rek tubaab pour jariñoo ko ci kaw Sénégalais yi donc ñun moo fii peuple bi c'est un bi nga xam ne ñoom dañoo bëgg di nelaw dañoo nekk ñoom ci mbiru mbiru émotion mbiru xol waaw ci xol waaw ah, ils sont émo très émotifs yenn saa maa ngi gis ñu bëri di kontaan di tàccu naan ndeysaan macha allah Macky woon na euh, opposant yi. Macky Macky dafa baax. maa ngi gis yenn seytaane yi xam ne seytaane yi doon kont yi doon kaas di ci sëñ daara yi dóoroon xale yi naan sëñ daara yi sa pas normal ñu dóor xale yi nangam ak nangam maa ngi gis seytaane salopard yooyu nga xam ne ñoo doon kaas instant ñu ngi kontaan naan très bien police nañ dóor gars yi ndax gaa yi yar la xam Sénégal yi dafa réew donc dëkk bi dafa am benn incohérence bi a xam ne

policier mm. toujours bo len setlo sen sen sen trajectoire de vie mm. sen sen fin di fin duñu mujj mukk fu bax bala ñoo deesu lool lool parce que nit ci bopam mm. le moroomu nitam warta toroxal dëgg la li ñuy wax naan whatever goes around comes around mm-hmm. loolu moy li am mm-hmm. ci tey loolu bare dafay dafa valable pour ñëpp nag mm-hmm. lo mësa a leble rek loo mos a labara rek tey dellu lan la koy fay boo lu baax sa bopp nga ko defal boo defee lu bon sa bopp nga ko defal parce que day dellu si wàcc yow noonu rek la ndeysaan kéemtaan la kéemtaan la ajaratu Aïcha la la ya grande danan maa ngi jégalu ñëpp di leen ziar di ñaan jàmm di ñaan xéwal gu ànd ak sutura yàlla musal ñu làkk ñu fu yeggul te may ñu iman gu sax dakk amiin ci barke yonent bi sallallahu salaam wa ah, tey moom gis nga tey nag tey la grande course tey dugg na tey moom kon kontaan ngeen tey <laughs> kon très bien ba ba ba ñu changé thème bi ndax thème bi may na tey Aïcha dugg donc euh, <laughs> macha allah bu ko fàtt si ñaan nit ku am <laughs> itte la nit ko am itte la nit ku am taxawaay la donc euh, nit ko bëgg lu baax la. ku bëgg lépp lu baax la lépp lu laal diine laal bu baax daf ci xaar tànk tubayam ci lay nekk subaak ngoon guddeeg bëccëg nest pas ñun on avait suñu groupe yi ya xam ne groupe bu xam sa diine ak yi xam ne ay yalla lañ doon waxtaanee wax dëgg yàlla groupe bi groupe bu yaatu la donc euh, moom ak ñoom Adja Yacine euh, des fois day dugg si nga gis may maire yi gisoon euh, maire Yacine tamit maire njaboot la jigéen bu baax la n'est-ce pas ñoom maire ki nekk ñoom ñëpp Fatimatu Zahra ñoom ñëpp ndeysaan chaque jour ñoom tonton Issa ñoom Pa Issa fay, Pa Pa Pa Issa am tam mu ngi live bi <laughs> donc chaque jour on était là-bas di poser ay question di di di laajante biir ci lépp laal diine ku am question andi ñu ñu tontu waxtaan donc euh, moom macha allah ci itte boobu la nekk donc euh, nit nag chaque fois dañ koy seeral lekk lépp li nga xam moom lay def ak ci loolu lay dox moom ci loolu lay dox suba ngoon ko dégg ba bëccëg moo tax ñu koy ñaan yàlla dëgëral ko euh, te sàmm ko macha allah donc képp est nee na nga bàyyi temps yow ay Aïcha nee na nga bàyyi temps bi. <laughs> notamment man maa mak sant maa ko ne xool xool ma tam bi balaa ñuy balaa ñuy tarxis donc euh, mais nak gars xaar kon ñu ñu mën nañ taggo kon am na ne am yu bëgg taggo mais nañ taggo rek amul solo ci taggo gars ku nekk dem jël kurusam ñu dem door ay dok tu ci alquran euh, wajal waxtu bi xamna ñu bari si yéen yaa ngeen ci dekk tuba yi fajal nga waj jot euh, ngeen julli ñaanal aduna bi ndaxte dina metti trop 2020 bi donc euh, waaw Mais Medoune Dieng euh, déet Zeyda Zaman moom moom moom bokkul si groupe boobu moom <laughs> bokku ca Zeyda Zaman kay moom dugg si groupe donc euh, ñu ñaalante léegi gannaaw suba on se retrouve incha allah en live incha allah on va attaquer notre thème suñu thème bi nga xam ne mooy baatil ak baatin ñu yeggali ko c' est vrai que Kempes Conte moo koy fàttali te fàttewuma ko par rapport ak théorie du genre deuxième bi partie deux bi ak live sur euh euh, sax sur euh, la dette intérieure bi xamé tamit ak sur le foncier euh ma ngi ko amel ba faté wu mako deug yalla temps yi corona mo ñu japp rek sonal ñu waye alhamdullilah donc euh di leen fatali nak né ci chaban bi ñu nek euh wax deug yalla ci wor lu bari nak baxna nak bax trop déjà yatu sa sa mo ñu fatali won né sumu tasihu sa wor len di ngeen wir n'est-ce pas wor len di ngeen wir n'est-ce pas donc kon gaay Euh, yokk leen koor gi yokk leen koor soo mënee woor woor leen ko incha allah xam naa des na tuuti imaam suñu imaam yi nañu fi def fatwa léegi kon nga def nañ fatwa ne jumaa yi tëj tëj leen ko léegi ñu def fatwa ne gars yi woor bi mu wàcc na leen ndax nii moom ndax seen ragal yàlla moom man laa nekk di werante xam naa ne man moom du mu jiiteeti fii jumaa yu bëri instant yi euh, du mu fa duggati waaw xam naa du mu fa duggati suñu Issa ñu ngi lay ziar bu baax a baax le très grand Issa ki mooy ki mooy jëriñ bu mag mag bi donc euh, macha allah et eh, sama gars dañ teel na waaw man sax dañ doon wéetali nag waaye nag ñun tamit comme que instant kay pare nañ noonu li nga doon wax kay jeex na nañ ko dagg rek du du du du wees gannaaw suba ni tasewaat incha allah comme ça on va beaucoup plus avancer et gannaaw suba Cheikh Baye moom dina gën a dina ko xaw a gën a gën a gën a jekku <coughs> incha allah ndaxte on va parler de spiritualité beaucoup plus de spiritualité on va parler de tasawuf on va parler de tarbiya n'est-ce pas On va parler de, de, de n'est-ce pas On va parler de Tasfia, n'est-ce pas on va parler de beaucoup de concepts c'est des concepts de tasawuf yi des fois n'est-ce pas on va parler de l'utilité de ce qu'on appelle cheikh Mourabi, qui est le maître spirituel capable d'éduquer spirituellement Talib n'est-ce pas donc qui est ce cheikh Mourabi quels sont ses critères Eh, soo ko soo ko xàmmee nag nga war a ànd ak moom lu ñuy wax ak soxbatu sa compagnonnage spirituel la diggante yow ak sa maître naka la war a demee sooy fàttaliku yaa ngi fàttaliku nu Moussa alayhi salaam waxoon naan hal attabiuka ala ala an ala ala euh, minna ah, ma lam nga gis ni kon euh, voilà euh, question la bi nga xam ne am na ko lu mu doon sàkku lu ñuy wax ar rushdu n'est-ce pas ar rushdu n'est-ce pas ar rushdu nag bokkut ak al hidaaya n'est-ce ñaar yëpp si si si si njub lay dellu rek waaye bokkuñu martaba bokkuñu maanaa n'est-ce pas c'est comme suñu ne ñu ne instituteur ne ne professeur bokkuñu dayoo ñaari bokkuñu dayoo n'est-ce pas donc euh, macha allah euh, xudar boobu tamit Moussa waxoon loolu tamit jox ko tamit euh, jox ko condition andi ko chart ne ko fa in tabaatani fala tasal nii an shay xataa uxdisa laka minhu zikra attention kon jox na ko charte naka nga war a àndee ak man n'est-ce pas naka ngay àndee ak man ko déjà àndandoo diggante sëriñ ak taalibe am na ay charte am na ay critères n'est-ce pas am na ay valeur am na code yoo xam ne am na ay norme yoo xam ne ñaar yooyu euh, ñaar yooyu moo ko tënk n'est-ce pas mu ngi wane tamit euh, lu am solo yoo xam ne ñu ko war a bàyyi xel parce que yàlla ba mu koy joxoñ euh, xudar Euh, joxuñu ko nemp wax ko sant ne ko am na ku tudd nangam wax ko am na ko am sant nangam wax ko am na ku sol kaala bu nangam wala ko yor ngan di yére bu nangam yàlla jox ko tetal yooyu daf ko daf ko jox tettal ci ki nga xam ne wax dëgg yàlla dafa am xam-xam kon xam-xam mooy la base n'est-ce pas am na benn sëriñ bu mag Sénégal fi nga xam dafa bind sax euh, benn téere tuddee ko tabsiratul anam fi annal ilmu huwal imam n'est-ce pas di wax ne ah, di leeral ak di ubbi bëtu doomu aadama yi si nga xam ne xam-xam moo la jiite. muy andi dalil di prouver comment yonent bu yàlla fal naka la ko joxee xam-xam bu kenn amul ba tax mu war ñëpp ñu ko amul mën koo topp n'est-ce pas donc euh, dafa am solo kon ñu koy bàyyi xel ñuy bàyyi xel bu baax a baax euh, xam-xam moo tax yàlla sax mu koy wax mu koy nettali si alxuraan euh, sama sëñ mu koy bind léegi naan sotul sëñ Maadi mu ngi bind léegi naan sotul kaaf kaaf lu am solo la genre kaaf dafa am ay kuxuuf yi nga xam ne góor yàlla dañ koy jéem a dox di ko xam si wàllu tasawuf maanaam les cavernes parce que cavernes yi ñu benn dañoo bëri am lu ñuy wax xaar n'est-ce la grotte am ay différence entre la caverne et la grotte mu am euh, symbolisme très fort bi nga xam ne qu'il y a dans la spiritualité musulmane n'est-ce pas mu ne fa wajada abdan min ibadina ko déjà lu yàlla jox waa jooju daf ko jox moom waaye du moom kese la ko jox du jagle am na ñeen ñu mu ko jox euh, bëri nañu n'est-ce pas mu ne aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunnaa ilma n'est-ce pas kon yàlla kon neena ah, ko ah koku man mako jox yërmande bu tukke ko ci man waye tamit jox nako xam-xam bi nga ci man la la bako la baw n'est-ce pas xam-xam yi nak wax deug yalla dafa bari ay maanaa amna xam-xam yu ko ci yalla amna xam-xam yu jeli ci doomu aadama yi xam-xam yi xam koy tukhal de deun en deun amna xam-xam yi nga hakaza extra extra donc on va discuter de ces réalités là yi xam sew-sew yi xam ko gis ci alquran maa koy wax sank rek sam ben xarit bi xam mo may wax ci walu mu ne ma xalilullah parce que ñu wax mané ibrahim moy Khalilullah, donc lolu ma xam bu rëy la mané ko waye yeen ci muhammad sallallahu alayhi wasallam moy habibullah n'est-ce pas ko khalil ak habib ñaari maanaay du ben, n'est-ce pas du ben donc macha allah ñaari maanaay yi dafa ça ça dit tout donc khalil khalil bi yeen ci ibrahim mo ne woon kat inni zahibun ila rabbi sayahdini n'est-ce pas xam ñi xam alquran deug n'est-ce pas ñu xam alquran dëkk xam na ni aaya boobu seydna ibrahim ne woon ini zahibun ilallah sa yahdini loolu bàkkaar la ci moom loolu lu rëy la lu grave la ndax les termes ont des ont des ont des ont des charges ils yu extraordinaires n'est-ce pas euh, li ñuy wax al rububiyyatu mooy l'océan la réalité de la seigneurie ak lu ñuy wax al uluhiyyatu mooy l'océan de la divinité nga xam ne fa la allah nekk ñaari maanaa yi nga wax dara allah nga wax ko rabbi ñaari bokku du mana, n'est-ce pas n'est-ce pas donc du ben, donc il y a chaque chose à sa mesure n'est-ce pas yalla dafa jox len lu nek sa juste mesure les mots ont des sens extraordinaires yoo xam ne eh, waxantuwul yàlla n'est-ce pas donc euh allah kon ko nag yàlla mu nëbb gaay bi ba xam ñu len ndax bu moo ñu ko waxee yalla ya'lamu junuuda rabbika illa huwa yalla nee sama sama armée yi kenn xamu leen kumay mom rek ko xam huwa bobu sax huweetu la ndax huwiyatu euh, euh, beneen réalité la bi nga xam ne ah huwa bokkut ak Allah n'est-ce pas huwa moom bokkut ak Allah n'est-ce pas donc on on essaiera de voir un peu tout ce tableau là de la spiritualité euh, yàlla fan la nekkee huwa qu'est-ce que ça huwiyatu n'est-ce pas qu'est-ce que la uluhiyatu maanaam li nga xam ne lu science la divine la déité maanaam Allah lu tax yenn baat yi soo nee Allah c'est correct waaye soo nee rabbi c'est fou n'est-ce pas donc euh, su Ibrahim ne woon ilallah sa yahdini moom loolu c'est grave n'est-ce pas ko day xam ne kon kii euh, jariñuwul te yonent yi dañoo jariñu dañoo mat dañoo am isma n'est-ce pas donc euh, macha allah donc nañu jéem a xoolaat tamit lan mooy ay awraat lan mooy ay wird n'est-ce pas donc wird ci lan la taxaw lan mooy ay askar lan mooy différence entre ay askar yi xam ne c'est des zikr c'est des pour tudd yàlla n'est-ce pas ci biir askar yi nga xam moom fa la awraad yi nekk muy les werd lan mooy particularités li ñuy wax ay ahzab maanaam les les xisb yi xam dañ koy jàng périodiquement n'est-ce pas quels sont leurs effets ci nit ki n'est-ce pas donc euh, lan mooy FM ci doomu aadama bi yi nga xam ne mu ngi yëngatu ci loolu donc lii yëpp c'est des c'est des questionnements yi xam ne quelqu'un buy engagé wu tasawuf c'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un c'est pas pour parparlonner de la far le fii la far c'est pas pour euh, concurrence quelqu'un, ce c'est pas pour Rawantel de mettre en compétition à sëriñ c'est d'abord une quête personnelle une quête spirituelle bi c'est personnel yow y a li ngay qui ci yàlla am na li nga bëgg moo xam ci ay xam-xam la moo xam ci ay compréhension la moo xam ci ay station spirituelle la ay maqam yoo convoitées. Et tu tu as besoin d'emprunter un chemin pour mën cee parce que sans chemin mënoo fa yegg n'est-ce pas donc euh, nga jéem a xool nag euh, chemin bi nga xam ne mooy chemin bu gën a approprié ak sa xaal chemin bi nga xam ne mooy chemin bu gën a méngoo ak sa yëg-yëg chemin bi nga ne sa zaw yaa ngi koy yëg nit ki nga xam ne euh, tiim na la gis nga nit ki tiim na ma n'est-ce pas mu nekk nit ki nga mën na laa jariñ ndax ki nga ne ku la rawul mën laa jariñ ku la tiimul mën laa may ker te fii la malheur fii nit yu bëri ñu ngi topp nit ki nga xam ñu ngi topp ñi nga xam ne ñoom ñoo sut ñooñu te xamuñu ko ñoom mënu leen jëriñ n'est-ce waaw ah, ana anta huwallah ah Souleymane Samba moom mu ngi baxal mu ngi baxal euh, martaba yi xam nga dèjà baatu laa ilaha illallah euh, nga xam ne mooy archétype bu tasawuf dèjà dañ koy dañ koy xool si ñetti mazahir yi nga xam ne mooy ñetti mazahir yu ñuy yu ñuy wëree yàlla muy laa ilaha illa huwa te baat bi ñëw si alquran n'est-ce pas amul benn yàlla bu dul moom ça renvoie à ce que sa renvoie sa parle de l'islam nga xam ne mooy premier niveau ci diine islamu shariatu l'islam correspond à la charia, n'est-ce pas Donc, euh, qui correspond aux actes et aux paroles, n'est-ce pas Qui renvoie à l'identité de Dieu, subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas Donc, euh, le deuxième niveau, la ilaha illa anta, n'est-ce pas qui est une station tamit privilégiée yonent yunus sooy fàttali ko ko yàlla si alquran ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin n'est-ce pas ñu wara xamni rek kon eh, moom moo ko sauvé ci biiru jën bi et c'est un langage allusif Yunus nekkuloon ci ben biiru jën su yalla yàlla su ne lu mu bëgg wax waaw ah, mais parce que 40 jours suuf géej gi si ben benn lolu loolu waxin la rek on parle au doué de raison euh, il n'était pas du tout dans l'océan il n'était pas dans une baleine ak xaw dans ñuy wax naan requin la ku nekk di jéem wax ay waxam euh, jën dafa am lu muy tekki dans le langage divin n'est-ce pas il faut comprendre que y a un jargon dafa am lu wax mustalahat bi xamé il y a un jargon bi yalla di utiliser suy wax ak jaamu yalla yi donc amul jargon boobu mënul dégg waxu yàlla bi c'est-à-dire s'exclut de la parole d'Allah subhanahu wa taala et on a besoin de mettre nak, par rapport à cela mu war ñu nàndal euh, mu war ñu tëbb mu war ñoo dolli donc laa ilaha illa anta amul ben yalla budul yaw, manam anta mom, même dans les damir yu ñuy jàng ci biir arab euh, ku ne ana anta ak ku vraiment c'est c'est clair Kune lui c'est parce que tu ne tu le vois pas wala bok, même si tu le vois tu lui parles pas yaa wa kenen n'est-ce pas moo tax nga ne lui waaye ku toi kooku moom il indexe celui à qui il parle kooku moom dafa jàkkaarloo ku muy waxal n'est-ce pas donc euh, dafa jar a bàyyi xel n'est-ce pas am troisième niveau bi nga euh, niveau bu gën compliqué la n'est-ce pas muy laa ilaha illa ana nga xam ne loolu c'est un tout autre niveau bi nga xam ne loolu peut-être c'est pas développé mais pour répondre à la question de Souleymane Seck bu naan imam lan mooy Tamkin, tamkiin mooy mooy nit ki nga xam ne il a am am na am na dal maanaam am na dal euh, am na am na repos par rapport à quelque chose parce que le plus souvent dans les stations ak si xaal yi nit ki dafay wër dafa nekk ci biir benn euh, il est entre deux stations di voquer it aussi dafa nekk si ma. donc oscillement boobu nag dafay tax euh, nit ki amul dal saxuwaay ci benn maqaam wala ci benn ci benn taxawaay léegi nag su demee ba am position ci benn bërëb donc euh, lolo ñuy wax kooku TAMKIN, na tamkin euh, station boobu il l'a éprouvé il l'a vécu euh, il l'a sillonné il l'a totalisé il l'a confiné ba pare il s'y est assis donc li mom soo ko boolee kooku wax né amna tamkin n'est-ce pas ak tamkin ak ak rusuux tamit li yeb ay euh, waaw donc machallah donc on discutera de tout ça par rapport au euh, le cheminement spirituel je ne vais pas entrer dans les détails hein mais détails peut-être qui sont réservés à des initiés mais les basiques la base c'est que les moyens les mooy parce que nit ki war une vision une compréhension de quelque chose avant de engagé Le travail de recherche là am même tarif c'est que Sénégal laa ay particulier Sénégal ils sont particuliers en tout c'est-à-dire gis quelqu'un bi xam ne dafay moom affaire de star la affaire de man fii laa fii laa faral wala kii laa àndal donc il faut euh, nit ki gëstu euh, yoon yu mu xam yépp bu nekk lan lay proposer lan lay joxe lan lañ fay joxe lan laa fa mën a am par rapport ak man li mu bëgg man lan laa bëgg déjà qu'est-ce que ma volonté lan laa bëgg a am euh, su ma demee seet kenn loolu laay waxtaan ak moom ne ko man kat lii laa bëgg ndax loolu mën nga ma koo jox la am nan nga ma koy joxee mun la ni ak ni ak na nga engagé wu ak momé ñaan ngeen andi dem n'est ce pas donc euh, li moy les quête préalable yi xamé bu yàgg ba gaay doon gëstu di xam li xew bala ñoo dugg légui nak niki ki ko du sax gëstu fay ñëw di salaamaaleykum man ki la faral ki moma neex ki du moro kenn moro gaay n'est ce pas donc lolu c'est pas du cheminement bu ñu xam ci biir tasawuf donc on va partager kon sur ces questions là on va parler tamit de ni gaay yu bëgg bolé tasawuf légui ak mbiru Euh, garabu garab boog mbiru baatin ak asraar et c'est pas la même chose n'est-ce pas nit ki demee ci benn sëriñ bi nga xam ne cheikh la dañ ko seexal waaye cheikh bi activité mu gën lu mu gën a fonk sax mooy mbiru ay turu yàlla ak ay baatin ak ay soo defee lii di nga am lii boo defee la quête spirituelle bokkut ak ses ses ses réalités temporelles affaire matérielle yi nga xam ne si àdduna la yem n'est-ce pas ay soo defee lii di nga am lii di nga am nguur loolu vraiment c'est pas important n'est-ce pas donc c'est pas important donc euh, lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la ak tamit nit nit yi tamit di yàqee seen quête spirituelle bëgg nekk sëriñ waaw ah, ñëpp bëgg nekk sëriñ donc euh, voilà donc euh, macha allah daal macha allah yi il faut ñu waxtaan ci gën ko camper donc mbir yi gën a mën a avancé incha allah rabbi yàlla si yàlla defal tawfiix waaw soxna Njóoba mu ngi wax ne lan mooy sakina sakina mooy. il n'est pas loin mook tamkin yëpp di nga ñoo bokk kër soo xoolee soo xoolee baat yi euh, baatu tamkin di nga gis si biir tamkin makaan muy sa emplacement donc mooy ba tey question de euh, am fondement la ci quelque chose n'est-ce pas donc euh, baatu sakina tu verras le verbe sakana c'est le verbe habiter sooy xool alxuraan yàlla mu ne aadama dafa ne yaa aadama skun anta wa zawjaka aljanna habite et ta femme le paradis maanaam habiter skun donc sakina nag Euh, moy moy moy dalluwaay de nga xamné ne euh, voilà en en situation de repos na si situation de waxtan ci waxu on parle la moy sakina dañ mëna a bu baaxa baax sakina ak tamkin ndax duñu dafa am ay sew-sew ils pas nest pas ils sont pas pareils c'est comme sank bi wax c'est dafa am ay rek euh, deux stations totalement différentes n'est-ce pas donc euh, on on en parlera inshallah rabbi yal ci yàlla may may ñu féké ko tal ko inshallah rabbi donc euh, eh gars yi ñu ngi laaj ay ay yokk yokal 30 minutes <laughs> Wa non euh, on va réserver ça à ben lolu kessé wa Bachir kan mu ngi laajte la moy talsam donc talsam mom <coughs> c'est c'est rien non c'est c'est un nom composé on parle de talsam quand on parlera de, de, ça, de, de nom bien qui a été agrégé. Je donne un exemple. Donc, euh, tu verras un, un talsam bien qui a été programmé et composé à travers un nom. Supposons, euh, nit ki ñu ne ko nga fatiha mille fois lu ñu ne nga war a wird fatiha mille fois nit moom xam na ni boo dee jël fatiha di jàng benn par benn bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi bil alamin boo la daalin amin mu tee a tàcc mille fois wala boog supposons dix mille fois c'est un problème loolu mën na ko jël toute une journée du pare talsam c'est des mots yi nga xam ne c'est des mots synthétiseurs ay mots yi nga xam ne c'est des mots la yoo xam la fatiha elle a un poids numérique un poids mystique bi xam ne de ce poids numérique là on peut construire Euh, ce qu'on va appeler le résumé le barycentre le mot bien, qui synthèse la Fatiha Un benn mot bien, un mot rek am euh, sur le plan numérique mystique naturel harmonique et lumineux sur tous ces plans là tu as évoqué la Fatiha avec un seul mot C'est pas ça lors d'un mot boobu soo tu as tu as une talsam n'est-ce pas te nag loolu la nit ki di laal loolu dix mille fois moo que a gaaw ko moo def Fatiha ben bu mille fois yaay tal sam ki ont des multiplicatifs moo si même si saatul adna tu verras dans la salle de ay baat yi nga xam ne équivalent su un million de saatul de la benn bu mu kese bi xam gars yi ñu koy liggéey fi am fi nga ils font des milliards de saatul fatih par jour n'est-ce pas donc euh, des milliards n'est-ce pas am si nga xam ne ñuy def ay euh, cinq cent mille saatul par jour ni ay six millions gis benn mot bi nga xam ne mot bi cent mille Salatul Fatiha cent millions wala boog deux cent millions et cetera donc ça ce sont des des talsam yi nga xam ne qui sont utilisés donc euh, c' est des mots très complexes et c' est un milieu très dangereux baat yooyu noonu yu bëri nit ki waru ko jël ci n'importe qui war ko jël ci n'importe comment ndax euh, bëri na ay accident sax yu am euh, yooyu moo koy andi et mbiru yàlla moom dafa nekk lu leer set ba nga xam ne nit ki mënu see dof bu ñu ci am problème n'est-ce pas donc macha allah. Euh, Guèye Ibra mu ngi wax moom ne lan mooy murtat murtat si quelqu'un bi nga xam ne dafa dañ ko éjecté c'est quelqu'un bi nga xam ne qui a été éjecté par rapport à quelque chose sa à dire danga da nga da nga am euh, murtat mooy par exemple da nga egg si fenn si benn niveau euh, ñu jëlee la fa maanaam tu t'es dellu nga da nga dellu des fois c'est positif des fois c'est négatif am na lu ciy jublu si murtat murtat boobu c'est positif ndax am na maqaam bi nga xam maqaam boobu sax ci sax dalay dalay yàq da ci war a murtat soo waree jariñ su la yàlla waree jariñ waaye nag am na murtat bi xam ne moom la gars yi di gën a utiliser kooku moom vraiment dafa àggu mooy ki nga xam ne dafa egg si fenn ba pare il a été renvoyé donc murtat ci utiliser ñaar yëpp nga xam ne moo tax il bien xam nit ki ci ban contexte lay wax kii wax murtat n'est-ce pas donc euh, macha allah c'est très important donc euh, murtat waaw murtat lu si gën ëpp yi ñuy wax daal baaxul waaw <coughs> ke samura contrôle plus c contrôle plus v tu as tout dit <laughs> waaw waaw di nga tey affaire bu jëna nekk les questions réponses waaw léegi nag noonu dañ bàyyi ba kii dina dina dina gëm naa ni ce serait mieux mais on va faire benn une heure trente minutes bi xam ne qu'on va réserver wala une heure de temps qu'on va réserver à l'exposition nga jël benn une heure de temps on va réserver à des questions réponses n'est-ce pas yi nga xam ne ku nekk mu proposer des questions donc pour gën a mën a familiariser avec la chose qu'on appelle la tasawuf. Parce que tasawuf, c'est un langage euh, universel, de question tarixa. dafa dépasse tarixa ce que c'est nekk tasawuf di xeex di di diirante mbagg ak c'est parce qu'il n'a rien compris de ce mu il n'a rien compris n'est-ce pas donc euh, il n'a rien compris tasawuf depuis que bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa ahlus souf maanaam les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne ñu doon la donc c'est une c'est une opération extraordinaire bi donc euh, lu doy waar la n'est-ce pas donc tasawuf boobu nag euh, elle a été une réalité sans nom jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam après yonent bi léegi jamono bii dafa commencé nekk une un nom sans réalité ndax jamono bi ñu bëri ñu ngi wax tasawuf waaye il y a pas de contenu il y a rien dans ce qu'il font ñu ngi si parparloo ñu ngi ci caaxaan ñu ngi si dof-doflu te loolu tasawuf n'est-ce pas donc euh, Patendom mu ngi wax sur le nombre 19 intervient plusieurs fois dans le Coran quelle explication que vous pouvez donner Bon, je n'ai pas d'explication par rapport à ça, mais je sais que le nombre 19 est un multiple de toutes les sourates du Coran. Il y a un travail qui a été fait sur ça, n'est-ce pas Le nombre 19 est un multiplicatif de toutes les sourates du Coran, tout, tout, même sans exception, n'est-ce pas On le perçoit très bien dans la première révélation du Coran qui est conçue 19 lettres, 19, 19 mots. La première révélation du Coran, 19 mots, il y a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

question bu jafe la nag wax dëgg yàlla question bu jafe la waaye nag bismillah euh, jullit euh, bëri na lu ko mën a génn ci islam euh, yii mu xam ko yii xamu ko n'est-ce pas mu xam ko yii ko donc bëri na de mbaa lii lii génn ci islam bëri na topp waaye ku yàqu ku aqidaam yàqu génn ci islam n'est-ce pas ku ku xormaam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dindeeku maanaam mbëggeelam ci yonent bi sallallahu alayhi ak respect ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn si islam n'est-ce pas euh, ki nga xam ne yàlla comme kilifa et bii moo gën a grave bii moo gën a grave et bii je le dis je prends des gants en le disant n'est-ce pas donc euh, euh, musulman il faut ñu delluwaat ci baat bi al islam c'est la soumission al muslim n'est-ce pas c'est celui qui est soumis soumis à quoi le soumis à qui il est soumis à Allah il est soumis à l'ordre d'Allah On a une double soumission mais c'est une soumission essentielle mais c'est une soumission existentielle Donc ici, essence l'existence n'est-ce pas donc quand on est soumis à l'être d'Allah subhanahu wa taala mooy kon nangu euh, On à attribut à boole d'Allah. Euh, dafa dafa kawe yàlla dafa dafa sell yàlla dafa nangam yàlla les sacrifices yi chey yàlla nuróowul ak dara yàlla bu mënoo ko jëmbal mënoo ko def nangam c'est que lii c'est des réalités yoo xam ne dogmatiques yoo xam ne da nga ci war a adhéré gëm ko euh, di ko doxal waaye tamit la réalité existentielle gëm tamit pexe yàlla gëm euh, mayu yàlla bi ak pouvoiru yàlla yi gëm ordre yàlla bi maanaam yàlla ordre bi moom la bëgg na man nii laa bëgg mbiri doxee lii lii bëgg naa ko jut mooy à tout cela quelqu'un nag bi xam yalla dafa teurel nga ne yalla d'accord mak mom c'est parce que do jul tu n' pas soumis en réalité euh tu n' pas soumis c'est pas ku yalla moy sa borom té yalla bu teurel nga man d'accord mak yalla yàlla li mu tëral dama ko gis fi Sénégal ñu bëri ko def euh, dak penda mor no man d'accord accord ma ci peine de mort ko wax nest ce pas donc euh, donc euh, yalla ko wax nest ce pas ànd ak noonu yàlla ki xam dafa jup xex yalla nga ànd ak moom mais loolu léegi ci islam loolu bokot islam n'est-ce pas donc euh ak yene ak yeneen te loolu sax génne islam bi li may wax ni moy génne islam ci teraanga l'islam bi donc génne islam dafa dafa dafa dafa reuy manam l'islam dafa am trois niveaux n'est-ce pas premier niveau bi moom mu niveau bi nga ko taxaw weddi yalla ouvertement ko génne islam tant que nit ki deful loolu nak mën ñu ko ci génnee donte moom génn ci waye kenn mënu ko kenn amul droit génnee ko ci dañ koy nangul ni mu ngi ci biir moy statut nafiq ki xamé nafiq la ko gëmul yalla man jàpp naa Sénégal naa féq yaa fépp n'est-ce fii Sénégal su ne quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans ci quatre-vingt-quinze pour cent yooyu quatre-vingt-quinze pour cent ay naafeq lañu gëmuñu gëmuñu islam nanguwuñu ndogalu lislaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam du seen seen kilifa su leen nee defal lu def su leen nee bàyyi lu ñu bàyyi gëmuñu ko nest dañuy warante sax ay waxam di ko di teg xel naan ñoom ñoo gën a intelligent yonent bi sallallahu opération bu jafe la bi nga xam ne yàlla daf ko santul kenn ndax yàlla moom moom diineem n'est-ce pas moom diineem ba pare àtteloowul doomu aadama yi diineem bi n'est-ce pas donc euh, waaw macha allah donc euh, bi daal yéem na et gars yi day ma bëgg téye fii gars yi gën a guddal heure bi jot na Aïcha il fait vingt ans instant ñu gisee à combien tey donc mais soo bëggee c'est suba la gannaaw suba on fait des questions ce serait intéressant tamit yow soxla nga yow YouTube sax mën nga def fii suñu suñu Facebook on beaucoup parler mën nañ sax trois heures xam ne on va question réponse ku mu neex poser question su ma xamul sax ñu fi nekk fii parce que panel bay borom xam kese fi nekk ñoom Issa ñu ngi ay ndaan lañu gars yi gars yi dañuy dañuy làkkatu di xoolee waaye gars yi ay ponkal lañu n'est-ce ñoom Samba ak gars yëpp ñu fi ñoom Mahamadou Bachir gars yëpp ay ay ndaan lañu Ah, gai fa tabarakallah gars dañu dañu dañu dañoo sar ci affaire yi dañuy ni rek ah, di di di di nek di talibi taalibil rek waye machallah allah donc donc machallah allah eh, mais restons à allah donc restons avec allah nest ce pas yalla ñu nek ci yalla rek daiman waaw eh, jihadiste eh, bax yaay bat jihad déjà jihad bat bi arab la bat bi jihad la faire ittahada c'est le verbe faire un effort quand on parle d'un effort nak waxuñu waxu rey nit n' est ce pas nit yi ñoo ko jël bëgg ko def ay reyaate yàlla il parle de faire un effort jaayante bi ngay jaayante pour bañ def lu bon rek la pour bañ verser dans le dans le mal ou dans le péché jihad la tu es en train de faire un jihad euh, ma an nafsika te jihad bi moo gën a si jihad yëpp mooy jihadu nafs n'est ce pas jihad nag bëri ay martaba ma nga jihad bi am waalika jihad par tes biens et tes moyens si jihad jihad bu fort la yàlla la njëkk wax wa fi sabilillahi bi amwalihim ya kon il nous appelle ñu jihad de par nos moyens n'est-ce pas wa anfusih, ba anfusihim jaane tam bakani bakkan n'est-ce pas maanaam euh, voilà dans vos passions dans vos pulsions dans vos voilà etc., etc. donc jihadiste c'est quelqu'un bi xamé il est en jihad c'est quelqu'un bi xamé qui est en effort effort ci jaamu yalla effort ci moytu ay tere yalla effort ci taxawu yalla ci ay ak yalla effort ci lepp li xam yalla ko soxla suñu agresser yalla dama nga protéger ko parce que le jihad même dans le sasam c'était pour protéger l'islam c'était pas pour conquérir l'islam n'a pas de vocation japp di conquérir naate di rayaate gaay pour pour toubal gaay par force non non soxla ñu ci tuub par force n'est-ce pas tuub nit daf koy bëgg xolam mo dañ ko wara a melo yu rafet moo war a ànd nit ki mu tuub mais par la la la contrainte ah la contrainte waaye quelqu'un bu ñuy jéem a agresse nag ñu jéem a tooñ n'est-ce pas mais kooku dañoo war a xeex moom dañoo war a xeex ngir mën a sauver yu diine dañoo war a xeex ngir sauver yu bakkan ndax kii def ñu bëgg a rey donc loolu dañuy xeex n'est-ce pas donc euh, les musulmans sont jihadistes man su ma gisee jul bu ne man man du ma jihadiste daf may jàpp rëyee may xam ne kii n'a pas compris c'est que nak tuba bi yéfer yi ñoo jël baatu jihad ñangal ko doyal ko war ba julti sax duñ ko wax nest ce pas donc euh, waaw ittahada effectivement ñaari formule yu benn ittahada ak jahada ñaari forme yi euh, euh, duñu benn iftaala ak faala ñaari ñaari forme c'est des formes de, de verbe différentes n'est-ce pas mais jihad ci ci batam deug deug donc euh, voilà c'est c'est faire l'effort Vespa. Jadno je jalo sutorano. Ja jem sama gajnak. nak. paseno. Te imam ona, do njo, do kidi. Do njo, do njo sarani. Vespa. Jadno je jalo defal tawfiq. Donc, euh, ziar na leen ñëpp di balu ak Dilen leen baal ak di ñaan yàlla yàlla boole ñaan yàlla yàlla dool ñu jàmm dool ñu taw fiix dool ñu yiw kon ñu ngi leen tàggu di leen jox dig daje ba gannaaw suba insha allah ñu yeggali suñuy waxtaan insha allah rabbi donc baraka allah fikum jamian assalaamualeykum wa rahmatullah